mbokk yi asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ginnaaw dañu sant yàlla julli ci yonent bi sallallahu alayhi wa sallam dellee sant Cheikhul Xadim ñoo ngi nuyu mbokk yëpp ci nuyoo bi nga xam ne mooy nuyoo bi gën a tedd di am mbégte bu baax ci daje bi nga xam ne dajalewaat nañ ko ci jotaay yu am solo yi nga xam ne kuréel gi nga xam ne mooy kuréelu liggéey bu tedd ki liggéeyal bu tedd ki dina koy amal saa yoo xam ne bis bu màgg bi di bisu gàmmu jub si na mu bokk ci activité yi nga xam ne dina koy waajale gàmm li gannaaw ba nga xamee ne euh, màggal gi nga xam ne moom la génn activité yi nga xam ne moom la ci doon amal amal na ko ci kon ñu sant yàlla bu baax a baax ginnaaw ba ñu taw feexalee dañ fekkee waat jotaay yu am solo yi amal am na ñu jiitu woon sax jotaay bi waaye bokkutoo nag jotaay bi nit ñi nga xam ne na dañ ko doon defee ngir ay jotaay la woon xam ne dañ ci doon lëkkaloo euh, MK TV muy télé bi nga xam ne mooy Muqaddamatul Xidma ci amal ñetti jotaay ci yoo xam ne ñu jël ñu bi di gane àdduna gane àdduna yonent bi sallallahu alayhi wa sallam jàngat ko waaye jaarale ko ci mbindum Cheikhul jëm ci ay bind ak i euh, jàngat yoo xam ci bind jël maanaam feeñ na ci yonent bi sallallahu alayhi wa ci mbirum Serigne bi nga xam ne ci la ñuy tëj xam ne ci la ñuy woo mboolem mbokk yi ñu ñëw boo xam ne bu am solo la boo xam ne yitte gi solo maanaam kawe na lool. yu bari mu xam ñam fa def ba bu yàggul rek téeméeri fanweer benn la ñu loo xam yoo xam ne. nañ koy julli àjjuma loolu nag bokkut li fi nekk ay jàkk yoo xam ne jàpp naa ne ku ko doon wàññi moom da nga jël waxtu bare bari ndax foo fu ne jaar jàkkaag kon loolu day wane ne li taxoon borom sant ko muy jaamu yàlla moom ñu ngi ko fi bàyyi ndax li gën a jëmmal jaamu yàlla mooy julli tey julli yi julli àjjuma moo ci gën a rëy ibnu islaam tëb koo ci wax ci wax yu rëy rëy bëgg yi kon bu dëkk bi àggee foofu ci loolu tey bu ba jotee barab boo fi doon da nga xam ne jumaa dañ fa tabax jaadoo na ndax day fes dere ñu fay jàngale lislaam di fa joxe ay euh, euh, ndigal ak i jottali kàddu yàlla maanaam diine di fa dunde diine di fa dunde saa su ne loolu bokk na ci liñ seet na dëkk baa ngi dox bu baax a baax doon foo xam ne dafa neex a jaamu yàlla ndax yi gàllankoor jàmm yàlla ci mbaaxum sëriñ bi ak taxawaayu amul ci dëkk bi ku am gàllankoor ba naa fi guddi wala jàngoo guddi suñ guddi rek leneen la waaye du lu jóge ci nit lay gàllankoor te am na barab yoo xam ne boo fa toogoon bëgg naa fi tey fii nag eh, doo dox ci mbedd mi ba saxaar xëy la naankate saxaar yi dañuy làqu bu ñu koy def te yooyu yëpp di ay gàllankoor yoo xam ne day dox diggante nit ci lay nekk ak na mu bëgg a jaamoo yàlla kon mu mel ne dañ koo def muy bii ak bu set ngir neex a jaamoo yàlla loolu day wane kon ne li taxoon ñu sos ko it mu ngi ci jaamu fi yàlla yomb na ndax barab yi ko bari na ñi ko fi mën a jàngale yi bari nañ te sawar nañ loolu day wane ne yooyu boobu yi mi ngi dox bu baax a baax di foo xam ne euh, ku wax diine wax xam-xam te wax ku wax xam-xam wax alquranul karim mën nañu wax dëkk bii mooy dëkkub daara ndax borom ba mu koy sañ ci bokkoon na jëlam ñaanoon na des di daara wa jaalu daban maskana taallumi na des di daara loolu jéego bu rëy am na ci ndax booba léegi daara yaa ngi fiy samp ñuy jàngale alquran di jàngale xam-xam di jàngale bépp xam-xam bu am njëriñ yi nag euh, lii mbokk yi yëngu ci daara di waa rabitatu almadaris alquraniya wax nañu ne recensement bi ñu mujj def 2017 1524 daara yi alxuraan recensé nañ leen kenn ku ne ñu xam daara ja ak borom daara ja ko fa nekk di jàngale ak seen adresse 1524 daara ñu ngi fi ña cay jàng mat nañ 127 822 dongo 127 822 ci loo xam ne ñu ngi ko defoon 2017 te boobaag léegi daara yu bari dolliku na ay xalaayaa yoo xam ne. dafa guñ gëstu ngir xam luñ toll loolu day wane kon mu ngi dox ci wàllu jàngum alxuraanu karim ba tey euh, njàngum xam-xam yu majaalis ak njàngum diine yi li fi nekk ci ay majaalis yu mag mbooloo di ko xëy ëpp na ñaar fukki majaalis tàmbalee bu ci daarul maarifil islaamiya bii nga xam ne moo ne ci biir jumaa ji te alxaj boo duggee ci dëkk bi dem kër sëriñ Chouaïbou kër sëriñ Habibou dem Guédé penc yi man ñëpp ay daaray xam-xam ak jàkk yu baree bari ñu ngi ko def ay majaalis di fa jàngale xeeti xam-xami sharia yu wuute mbooloo di fa xëy ak baa ñu fay gont di fa jël xam-xam école yoo xam ne arabo islamique la di jàngalee l'islam di jàngalee jaare ko ci làkku arab doonte am na yeneeni doonte am na yeneeni xam-xam yu am njariñ yuy jàngal ndax sëriñ bi ba muy jàngul waxoon na wu kullu ilmin bi manaafi'a yi fii boole woon na ko ci wu kullu ilmin bi manaafi'a yi fii bépp xam-xam boo xam ne dafa làmboo wala day indi ay njariñ booba xam-xam buñ mën a jariñoo ndax luy luy luy luy luy dimbale lislaam lay doon foofu loolu wet googu it Tuubaa am na ci jéego yu mag a mag yoo xam ne ñi ci yëngu xam nañ ko mu assasu al azda al islami bi nga xam ne Cheikh Mouhamad Mourtada moo ko sosoon biir Tuubaa gi rek lu ëpp fukki junni ndongo ñi ngi ci daaraam yi biir Tuubaa kese laa wax université ba nga xam ne Cheikh Mouhamad maam moo ko sos sof ko ci liggéeyu booy juróomu tedd ba fi mu ne nii may wax ak yéen mille quatre cent euh, mille quatre cent étudiants jàng nga fa yu fa inscrire di jàgg jàng mu kawe kon ci wàllu jàng yi naka noonu école yi nga xam ne day jàngale franco arabe lim yu bare bare la ci dëkk bi ñu jàngalee xam-xamu xam-xami àdduna yi waaye di jàngale wàllu lislaam euh, di jàngale diine nga xam ne gone ga fay génne lañ soxla ci moom xam-xam yi àdduna dana ko xam waaye nag dana xam diine man ko jariñu nga xam ne ci biir muassasa al islaamiya ubbi nañ ci banqaas boo xam ne loo xam ne miiruñ ko woon ci école jàngale arab la mooy boo xam ne wilaaya ahibaahul xadim xidmatul xadim ay ay kuréel yu kuréel yoo xam ne bu ci nekk boo ko seetloo genn benn wet ci wàllu diine wala ci xam-xam moom lañ jël ay ndaw àndandoo ca di ngir luy tax dëkk bi jëm kanam loolu dëkk yi ci dajale yu mel noonu gëw ne bari na lool dëkk la boo xam ne it mën nañoo wax ne bu ramadaan dikkee jëpp ma ne kenn dundal na ramadaan mu raw nañ ñu koy dundale fii xam ngeen ñëpp jumaay Tuubaa gis bu yàlla sàkk dana am waxtu maktabu Cheikh Xadim suñu sa jatara jataay yi ñu fee taxawal nga dem ci yenn jàkk yu bare bari ci biir dëkk bi da nga fay fekk lu mel noonu ba ñu génn dëkk bi roye ko ci ñoom ànd wala boog ànd kook ñoom di ko dund loolu lépp luy sax diine yi gën a yaatu ndax saa bu dikkee nit ñi gën a yokk suñu wàllu diine ay topp yu bari yu wuute dañ dañ ci waxtaan ak nit ñi leen ay fatawaa di ñi di ci ub xamee lu ñu xamutoon di ci leerloo lu leen leerutoon bu ma bu màggal dikkee it noonu safar yaa di bari lool ci barab yi ñu xam ko ñépp di waxtaane diini di waxtaan ci xam-xam loolu moom jàpp naa ne ñun ñëpp seetlu nañ ko ay kuréel yu bari di ko seq euh, bokk na ci biir fii ci Daaru Minam nag jàkk jumaay sëñ moom Cheikh Mouhamed Bachir moom it bu koor gi dikkee ñiy organiser jataay xam-xam ñi ko njëkk tàmbal di ko def ci la bokk jataay yu am njariñ di gàmm gi noonu bu dikkee ay rabiyaat yenn kilifa yi di ko def seeni kër di ci woo nit ñi kuréel yi di ko def mu xaddimul xidma di ko def eh, liggéeyal ku tedd ki ñi ngi nii ci jataay yooyu lañ ba nekk tey yi loolu bari na ci dëkk bi kon ma dëkku ay kurél yu yëngu ci xam la màggal Tuubaa dikkee yi nag ay forum yi fi am nga xam ne international la bu ren moo ci mujj nga xam ne ay jóge ci ay réew day borom xam-xam waxtaane fi ay tomb yu amul njëriñ nit ñi waa réew mi it kilifa jóge fu ne loolu ci xam-xam dégg nga mbokk yi yi ci waxoon ñu wax ne jàpp nañu ne màggal gi day mbir moo xam ne soxla nañ ko nax lan day liggéey li wax li waxdatil muslimin li taxqiqi waxdatil muslimin lu jafe jullit ñi ci réew mi tey tubaa am na ko ndax dañ fi daje mbaarum teraanga yiir leen di leen teral xeeti teraanga yu ne ñuy déggoo di waxtaan ci loo xam ne bu ñu génnee dëkk bi dana jafe ñu amati loolu mbokk yi jàpp naa ne ci wàllu dëgg li lu am solo la xëy na nag kon bu su boobaa mi ngi dox moom mu gën a nosu benn am riqaaba yit am riqaaba ndax am na fi fi xew yoo xam ne jàpp naa ne laaj na nag lu koy sayit ba mën a des di dëkkub diini ba ki démb rek maa ngi ànd ak Serigne Cheikh Boussa Abdourahmane mu nataal boo xam ne na wax jàpp na ne lu jaarul ci Touba génn Touba loo fi jaay ma di ko wane it jaadu na am ñu ne ci sa ginnaaw ñu lay bàyyi la wax ne fii Touba dëkkub xam-xam la dëkkub diine la dëkkub njub la loo fi indi na nga ci sàmmale diine jooju loolu bu amee kuréel yu ko yor nga xam ne tey ñi affiché ñi fi indi ay am njaay di ko di ko di indi yuñ koy yuñ koy xemem loolu nit ñi ñi fi taxawoon ay kër yu ñuy liggéey wala ay kër yu ñu tàggat yaram danañu fexe ba ñooñu yëpp ñu bàyyi ci xel diine am na dëgg la ay kuréel yu mel ne xuddaamul xadim ñu ngi fi di ci góor góorgóorlu waaye mu no nos boo xam ne ñëpp dañ koy seq autorité diine yi ak idaara yoon yi bokk ko ba nga xam ne ni ku fi dikkati day bokk ci lañ lay teralal lañ lay leeralal tuubaakat boo fi publicité yi laaj na publicité bi fii la war a jaar nga xam ne lépp lu safaanoog diine wari su ko romb di ko gis ay nit di ko nataal di ko fësal ngir di wane ne dañ ci jaay dañ ci dañ ci dañ ci bëgg a jaral la ñuy jaay loolu jàpp naa ne moom ci liñ ñu war a def ci kanam ci la bokk ak it gën koo nos rawatina jàng mi tollu am nañ ci yaakaar ndax mu jàmmoo Cheikh Khadim bii taxaw ak système éducatif bi mu àndal bu noppee jàpp naa ne luy njàngum dëkk bi mu dana nos ba nga xam ne nit ñi danañ jàng lu am njariñ boole ko ko weer ak jub te su boobaa lépp ci kanam lay jëm loolu daal laa seetlu sëriñ saam ci wàllu gi mu doon waxtaan loo maa ngi jégalu na di baalu àqu salaamaaleykum wa rahmatullah. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu. jërëjëf Mbàkke ci eh, jàngat yu am solo yi nga xam ne tënku na lool waaye leer na nañ nit xamle nga. li nga xam ne mooy li taxoon sëriñ bi sos dëkk bi te mooy diine rek mboolem lépp leneen lu fi man di amit day ñëw ngir dimbale diine comme noonu nga ko waxee waaye diine mooy li tax a jóg dëkk bi ñu toll ni day mel ne ci noonu lay dox te loolu mooy li mooy liy wéy tey it ni nga xam ne noonu nga indee euh, jàngat yu am solo ci wàllu yu bari ci wàllu diine ak ci wàllu xam-xam day mel ne nañ ko na ko sëñ bi bëggee woon day mel ne mi ngi dox bu baax xanaa kay dafa fekk ne lu baax moom du doy loo ci gën góor góorgóorlu rek du doy kon faw ñu saytu yi ndax day mel ne ci ñaari wàll yooyu du ne sax des na waaye day mel ne buñ ci bàyyi woon xel bu baax fi mu mën na ko weesu kon day mel ne buñ doon tënk rek mën nañoo tënk ne loolu mooy li nga seetlu ci wàllu woowu euh, ni ñu ko waxee sànq ku ne xam ne it bu ñuy wax diine ay nit a tax ñuy wax ndax fu aw nit nekkut mënuñoo wax wàllu diine kon bu ñuy wax nit bu ñuy wax diine nit moo tax ay nit it fuñ dajee faaw danañ am nu ñuy dundee euh, xëy na diine day ñëw di organiser sax na ñuy dundee waaye du ñàkk léeg-léeg am yuy xew yoo xam ne xëy na mën naa jógee feneen ak yu mel kon wàllu woowu muy wàllu nekkin wi ci biir dëkk bi nga xam ne sax mën nañu lu génn diine ji waaye mënees na ko jàngat ci yeneen anam euh, loolu la ñuy bëgg sëñ Fallou incha allah mu ñëw ci ak ñun muy ci wàllu nekkin wi maanaam social euh, nan mooy li nga xam ne xëy na moom la ko sëñ bi bëggee woon ak fuñ ci toll ak lan mooy li nga xam ne xëy na. maanaam buñ ci euh, bàyyee xel dana gën a mel ñoom xam ne noonu la ko sëriñ bi bëggee kon sëñ Fallou bismillah aousubillahi min asheytaani irajim bismillahi rahmaani rahim rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi fi teew ngi yëkk suñu kàddu tàmbalee ko ci sant ak nuyoo ak sàggal mbooloo ñu fi teew ak mbooloo jullit ci bis yi màgg yi ñu nekk ziar ak cant ngeen sàggal njiital si Ahmadou Muntaxa xalifatul aam li muriid yi ñaanal suñu ko jàggal ko fi te mottali ko ay yéeneem di nuyu baax ñi nga xam ñoo leen seqal jotaay bi ak imaam Serigne Mbacké Abdourahmane ak docteur Serigne Khadim Bamba Diagne ak Serigne Sam Diop bi nga xam ne ni yaay saytu jotaay bi muy tomb bi nag ñu ko ak waxee léegi mu jëm ci Touba liñ ciy séentu ak nim ak niñ ko gisee liñ ciy séentu ak niñ ko gisee te mel ni loolu mooy tomb waxtaan muy tomb boo xam yaakaar naa nag waxtaane ko danay am solo lool ci jamono ñu nekk ak saa su nekk ndax mbir mu nekk niñ koy tërale nga xam mooy lañ bëgg mu mel ne ak lañ mi mel léeg-léeg dañuy mën di wuute mooy li mën a nekk ak li war a nekk ak li nekk léeg-léeg dañ dul bokk wuute yooyu nag kon xëy na di waxtaane fàttalante lay doon suñu biir ñu xam ne dëkk bi bañ koy sanc wala boog sëñ bi ba mu koy sanc moom am na lum ci yéene woon jàngale woon ko yaroon ci ay nit nu màgg ci dund ko tub diir nu xool ndax ba xam loola mi ngi fi ba léegi wala am na lu soppiku ak bu ci soppiku yan yoon lañu mën a jaar ba mën koo delloo ci sax li nga xam ne nii moo ko sosoon ni ko imaam waxee léegi ne diine moo ko sos lépp lu fi nekk dafa war a jëm ci luy liggéeyee diine àdduna bi nag fi ne ni muy doxee kuy xool da gis ne jafe-jafe yi bari na ci àddina bi lool dafa tasaaroo gis na li ñuy wax jàppalante ak mottulante te mooy solidarité ci diggante nit ñi xëy na day jël yeneen façon yeneen forme waaye day mel ni boo koy xool dëgg-dëgg ci dëgg-dëgg ci maanaam yi dafay dellu gannaaw ci lu baree bare dem sax ñu bokk jënd diine te seen diine digal leen ni ko sëñ imam waxee léegi lu baree bare ci fànn boobu loolu bu ñuy wax dund social vie social daanaka loolu moo ko gën a tax a jóg moo tax côté social ci nit dundinu doomu aadama dundinu askan wi mbooleem ñi nga xam dañoo ñëw di joyantiw askan wala ñëw ñëw di jubbanti dundinu askan wala ñu ñëw ñu ko defoon ci askan bu seen dundin seen vie sociale naka la ñuy mën a fexe ba réforme réforme ko ba mu gën a dëppoo li nga xam mooy njàngale mi am moo tax sëriñ bi lim indi woon te mooy beesal nga xam daa ñëwoon ngir beesal njàngaleem lislaam foofu rek la ko sosoon te buñ xoolee li waxoon rek ne maa ngi jihaat ci xam-xam ak ragal yàlla da gis ni di daal di matale lépp ndax ku ne xam na ne dundu ko doomu aadama mi ngi sukkandiku ci ñaari mbir yooyu ndax loolu rek moo ñu wutale ak bàyyi mooy xam gi ak xel mi ak dund gi ñu dund ci dund boo xam ne nii mbooloo mi dañ koy seq loolu moo ñu wute waaye ku ne xam ne nit buy judd liiru nit buy judd daanaka mook mbatam xar bu ñu ay melokaan yi ñu judduwaale ñoo koy bokk melokaan yu bari bari ñoo koy bokk xar man nag du weesu melokaan yooyu nit nag dafay jékki melokaan kenn du ko judduwaale waaye nit day judd bu pare nu def ko ci moom def googu ñu def ci moom nag moom la ñu ci arab attention ak liñ ci te mooy socialisation mooy génne nit ki ci melokaanu bàyyi ma dugal ko ci melokaanu nit yi ngir mu mën a ràññ ko loolu nag ñu ngi koy jaare ci personnalité doomu aadama bi ni koy tabax mu am ay fan ay wàll yu baree bari yoo xam ne nii dañ koy bàyyi xel ngir mën a indi nit koo xam ne nii royteef lay doon ci fànn yëpp loolu nag la ci jiitu mooy li ñuy tuddee maanaam wàllu dundin wàllu nekkin wàllu nekkin bi mooy wàllu social bi ñu koy waxtaane mooy nu ni mën a fexee ba dimbale nit ki ba mën a jëfandikoo man man yi ni ci biiram ko yàlla moo ñaale may ko ko te ñu war koo màggal mu war koo mën a jëfandikoo ak man-man yi nga xam ne yàlla def ci biir li ko wër aalam ci ko wër la ko la koy mën a jëfandikoo ba mën a nott ay jafe-jafe yi nga xam ne nii moo koy mën a gàllankoor ngir fonction sociale bi nga xam ne nii moom la war a taxaw ci kaw suuf man koo taxaw kon loolu mooy dundin askan wi ak ni nga xam ne noonu lañ koy séentoo kuy xool nag sëriñ bi ku nekk xam ne lim liggéey ci fànn boobu xëy na dañ ci ñëw ci kanam tuuti waaye bu ñu doon xool dëgg-dëgg xoolin bu xóot te xóotal waaye itam xool ko xoolin boo xam ne ni xeetu parparloo lañ ci bokk-bokk du ca feeñ defe naa ne loolu da nga boo ko doon xool da nga gis réalité boo xam ne nii léeg-léegi mën naa am réalité bu xaw a naqari lay doon te mooy ni sëñ bi seetloo woon dëkk bi ak mag ñi fi njëkkoon sax euh, yar ak ba mu fiy nekk jamono jooju ni ñu doon dundee ak ni ñuy dundee jamono ji da nga gis ne am na lu ci sopp lu bare baree baree da nga gis kon wuute gi bari ci njàngaleem sëñ bi fànn googu. ak nun ni ñuy dundee ci biir dëkk bi jamono ji noonu misaal bu gàtt rek tey mën nañ laa tegal ñaari nit ñoo xam dañoo wàcc liggéey sa kanam dëkk ci dëkk bi mën na am kenn ki boo laajoon la ko la ko lor dëgg-dëgg buñ la ko wax mën naa am jëfandiku bu bari ca la bokk xeeti jëfandiku yu bari ba far jaari ca lool moroom mi tëdd ci wetam mën naa am boo laajoon la ko lor moom mooy ñàkk lu jëfandikoo moo ko lor loolu loolu contradiction la boo xam ne nii réalité la boo xam ne nii léeg-léeg dañ koy gis ci biir dëkk bi te xam ne loolu dafa am ay danañ ci ñëw booy xool dem ci biir dëkk bi façon nit ñi ni ngay gis léegi ñu koy soloo di ko doxe di ko waxe di ko jëfleen suñu biir léeg dañ ci gis loo xam nii dana la wóor ne lii wuute naag ñi nga xam ne nii noonu la sëñ bi den séentoo ku dëkk ci dëkk bi ngay mel noonu loolu tamit defe naa ne ay réalité yoo xam ne nii ñu ngi koy gis ci biir dëkk bi maanaam yéenewul mu mel ne ak nam ko bindee woon ak nam ci yare woon ay mag dafay gën di soppi tu dafa am ay sabab yu koy indi moo tax bu ñu xooloon nag ci wàllum socialisation nit ñi mën nañ cee wuute waaye nit ko social ku nekk ak na nga koy tudde maanaam tey ka nekk ci Occident ci mel ci misaal nam mel wuuteeg man ni ma mel lool moom mën na am fu mu dëkk ma dafaa nekk nit ku nekk nit ku social waaye man tam fi ma dëkk mën a fee nekk nit ku sore kon delluwaay yi mooy tax nit ñi niñ leen di formé ci fànn boobu dafay wuute waaye am na ay soxla yoo xam ne nii mooy tabax nit gis nañ soxla yooyu képp kuy liggéey ci wàllu socialisation war nga koo xam di ko liggéey ndax boo ci fajtal nit ki ba mu mat beneen soxla day feeñ ci kanamam nga fajtal ko boobu bu defee boo demee nag ba fajtalal ko soxlaam yooyu nag ci ngay door a amee nit koo xam ne nii génne nga ko ci bàyyi ma dugal ko ci nite wala boog génne nga ci dundinu euh, bàyyi ma googu dugal ko ci ak nite ci misaal ñu ne la soxla bi nit njëkk a soxla woo mooy li ñuy soxla physiologiquement taxaw mën a dox mën a wax mën a jëf loolu nit ku ko amul xelam du ne ci leneen moo tax nit bu fekkente ne bëgg nga ko tabax li nga war njëkk a njëkk a def mooy fexe ba loolu muy jëfandikoo nga man koo ko sat nga mën ko koo dajaleel ba man koo am ndax bu ko amul mën naa jëf mën naa yor sax jikko mën naa dox sax doxinu Ibrahima ndax bëgg gum ko bëgg ndax dafa nekk loo xam ne ni yàlla moo ñu ko mooñaale ñu war koo mën a jëfandikoo loolu nag gis ne sëñ moo tax liggéey bokk na ci lim njëkk a réglé moom ci ñim doon yar mooy fexe ba loolee ñoom ñu koy mën di wutal seen bopp di ko gañeel seen bopp ba duñ ko jëggaani ci kenn mooy lu mel ni ci alkasbul xalaal mooy fàggalu leen loolu nga xam ne nii moom la teel a jàngal ñu doon yar gëm loolu leen da ngeen war a fàggalu leen lu ngeen mën a dunde ba du ngeen soxlaan kenn ndax ku leen soxlaal ku ngeen soxlaal ku leen mënal wala ba ku ngeen ku leen mënal ku ngeen soxlaal mu mënal leen ku leen mënal dana leen sañal te mën naa am ku ngeen bëgg ku leen warut a sañal dana leen sañal moo tax liggéey boobu sëñ bi teel ko dimbal ci ñi sosoon ci ñi yaroon ci dëkk bi mag ñooñee ñu daan liggéey loo xam ne nii dañ koy mën a faje seen bëgg-bëgg yooyu ba yeneen yi du mën a yeneen loraange yi du ca mën a jëndoo di wàcc ci ñoom nit nag bu amee loolu ba pare ci lay commencé nag yëg yeneen yëg-yëg yi di ñëw ci misaal tey yëg-yëg ci wàllu ruuxam wàllu yëg-yëgu biiram moom itam bu amee lu mu jëfandikoo ba pare mën a taxaw nag ci lay door a mën a xalaat ruuxam moom it naka la ko war a mën a defare ndax ci lay xamee ne yàlla damay bind ci ñaari mbir bindal maw yaram bindal ma ruux goo xam moo ci biir yaram di ko dundal kon nag ni ma fexee ba dundal yaram bi noonu tam laa war a mën a fexee ba dundal ruux gi ngir mu mën maa ràññale ak bàyyi ma ndax bàyyi ma moom ñun ñaar ñoo bokk fànn bëri waaye fànn ruux gi moom nit moo ko jar loolu sëñ bi ku nekk xam na ne li ñu taal faraaxu ruux yi wala boog vide spirituel loolu defe naa ne ñuy gëstu ci yeneen askan danañ ko gis bu baax a baax a baax bari na koo xam ne nii na muy doxe socialement ci wàllu social maanaam vie spirituelle moom la am moo tax muy doxe doxin woowu moo tax nit ki il faut ñu renforcer ko ci fànn boobu ngir mu mën nekk nit koo xam nii dana taxaw taxawaay bi war taxaw ci wàllu social moo tax sëñ bi itam daal di yittewoo li ñuy wax tarbiyatu ruux yi te mooy defar nit ki ci wàllu ruuxa moo tax kenn ci mag ñi bi muy bi muy tagg sëñ bi daf ne sëñ bi moom dafa defar suñuy yaram ba mu nëtëx ba ku ñu gis xemmeem ñu waaye mu defar suñuy xol suñuy xol ba mu seet wécc ba ku jaxasoo ñun dootoo bëgg a tàggoo ñun loolu tam liggéey nit loolu tam ba ku nit ki amee ba noppi nit dafay soxla woo leneen yëg am sécurité maanaam bala ngaa mën a dund dundinu askan wi bala jéem dund bu mën na xew il faut que dañuy yëg ci wàllum sécurité bi wàllum sécurité bi suñ ji teel cee jàngal nit ñi bind ci yar ci ne bu ngeen bëggee am kaaraange da ngeen di delloo seen bopp suñu borom subhanahu wa moo tax yéen bi jàngale woon yàgg ne boo boo boo sàmmool yàlla li mu lay sàmmaloo yàlla moo lay sàmmal boppam loolu defe naa jàngale woon moo tax sëñ bi tam bindoon ne ragal yàlla gi ma bëgg ci yéen bu ngeen ko defee ci yéen te muy dëgg ci yéen leneen lu dul yàlla daf leen di ragal booba ba dootu leen am lenn lu ngeen di tiit bu ñëwee ci fànn boobu nag ba tey ci biir soxla yooyu itam dañuy gis ne sëñ bi ci wàllu social ba tey euh, ngir mën a def yooyu ci nit ki nag mu yooyu moo xoon léegi ci la wëlbati ko woon nag sos ay barab barab yoo xam ne ni njàngale moomee dañ ci yar nit ñi former leen ci defar leen ci ñu màggaale ko ngir mu mën a jël loolu moo indi woon li ñuy wax du waru tarbiya mooy kër yi nga xam ne nii dañ fay tarbiya nit tarbiya foofu li muy defar rek li muy fiir rek mooy defar def ay dëkk yoo xam tam ni ko imaam waxe léegi moom itam dañ fay dajal xeeti ay catégorie ñoo xam ne yu bari la doon te kenn ci yàqal sa moroom morom ñu leen di defar ku nekk ci faroo bi nga xam ne ni moom nga war a am yooyu yëpp na bu amee nit ki dafay soxlawoo ko tey am na foo bu fàggee dafay soxlawoo ku ko am estime ku ko maanaam jox cër wàccuwaay loolu dem yàlla moo ñu ko bindee. loolu itam sëñ bi liggéey ci liggéey magam ak mooy delloo nit ñi ñu xam ne bu ñu xeeb suñu bopp ndax dañoo ñuul bu nu xeeb suñu bopp ndax mag ak nangam waaye ku nekk jàppal ne ni nga mel noonu nga war a mel ñu jàppin ne ku weex gënul ku ñuul. ku ñu lit gënu ko weex waaye ñu ngi rawantee ci ragal yàlla ak jëf yu mel noonu yooyu yëpp kon ay mbir la yoo xam ne nii bu ñu ko xoolee sëñ bi jàngale na ci yar ci ay nit moo taxoon bu njëkkoon yu mel noonu dëkk bi meloon ni meloon te mooy nekkoon dëkk boo xam ne nii ni ko sëriñ waxe léegi day nekk dëkk boo xam ne nii nit ñi dañuy delloo seen bopp ci yàlla mën na nekk jaamu yàlla waaye di nekk dikk dëkk boo xam ne nii dañuy bay di dunde di jaamu yàlla ko mel na woon ne ñoom xamuñu lu dul bay dunde leneen foofu ci bi bi mu fi ñëwee ci dëkk bi def fi lu am solo te mooy nit ki nga ubbil ko bunt moom mu mën a réaliser boppam mooy mu mën a jëmmal boppam te mooy li nekk ci biiram mu mën koo génne ba mën a jëmmal boppam mën a saxal ak nekkam moom moo tax rôle bi nga xam ne nii moom la yarkat war a taxaw dëgg-dëgg te moom la sëñ bi taxawe woon te képp koy roy ci noonu nga war a taxawe mooy nga fexe ba nit ki xam moom li man nga dimbale ko ba mën a jëfandikoo man-man boobu ci loo xam dana ko julal ak yokk ci fànn yëpp moo tax eh, ci benn bayit benn bayit woo xam ne nii sëñ Moussa moo koy wax da ciy tënk loolu ni ci sëñ bi liggéey yaay fekk waaye njorondaay nga ful ko wala boog nga fal ko loo ci mën a wax baax na boole ko gaa yi mooy da ngay fekk nit koo xam ne nii maanaam melutoon melokaan bu am solo nga defar ko ba mel melokaan bu am solo loolu mooy rôle bi nga xam moom la sëñ bi doon taxawee tey defe naa ne dëkk bi itam ba mu koy sos loolu moo taxoon mu sos mooy nit koo xam ne nii melut na mu war a mel wala boog lu baree bari manqué na ci moom tàbbi ci loxo yi dëkk bi tàbbi ci yi waa dëkk bi ñu defar ko ba nga xam ne nii bu ëllëgee bu bu fa jegee dañ koy day dañ koy. defar moom ci boppam day defar waaye day wëlbatiku di defaraat mbooloo loolu mooy kon nit ki buy dugg ci loxol sëriñ bi ba mu daan dugg ci loxol sëriñ bi du man dara waaye ne bu ci génnee day mënal boppam bay mënal ñeneen ci fànn yu baree bari loolu tam da ci am ci da ci am solo loolu loolu kon yooyu yenn at ci nga xam ne ni sëñ bi maanaam maanaam bind na ko wala boog jàngale na ko wala boog euh, na ko teñ ko daan jëfandikoo ci tuubaa ju njëkk yi ba tax mu meloon ni meloon ci fànn yu baree bari waaye nag ku nekk xam na ni njàng mu mënti doon euh, bu yàggee bu yàggee ay ay mu ci dugg ay déggin yu baree bari def ciy dugg loolu defe naa ne même diine ji ñuy dund sax ku nekk xam ne loolu daf ci loolu mooy tax nit ak kuy beesal di ñëw buñ toogee nangameet am ku a beesal yëf yi ñëw ndax loolu dafay tegtal nit xalaat wala njàng mu mënti doon am na diir boo xam bu ko yàgg bu ko toogee ay déggin yu baree bari day sosu ci biir yeneen yu baree bari yu ci bokkutoon ñu dugal ko ci biir yeneen yu bari yu ci bokkoon ñu génne ko ci bu ko defee dañ laa joxaat meneen forme njàngale loolu nag dafay mel ne njàngale mi sëñ bi doon jàngale tam am na benn benn nag yi ci commencé dugg yoo xam ne nii lu ci mën di xew yaakaar naa ne dëkk bi ci ni ko sëriñ waxee léegi war na noo mën a séddu mu taxaw taxawaay bu am solo ci ëllëgi doomu aadama yi ci ëllëgi réew mi ci ni ñuy orienté nit ñi waaye itam nu ñeen ni di defare bañ nekk ay nit ñoo xam ne nii seen wàllu nekkee dundin dana gën a rafet ci kaw nag ñu mën a exploité bu baax maanaam matukaay wala boog man-man yi nga xam ne mi ngi fi wala occasion yi nga xam ne nii mi ngi ci biir dëkk bi te ñu ngi ko jëfandikoo ci mbir moomu waaye nag buñ ko dee def te jëluñ ci matukaay yi ñu ci war a jël dëgg-dëgg dañuy ragal mu dem ba loolee jël ko ala xisaabi njàngale mi sëñ bi jàngale woon wala boobu mu jël ko ci compte li nga xam moo taxoon jëkk bi taxaw ci boppam moo tax maanaam fondement sociale bi sëñ bi tabaxee woon dëkk bi jamono ji nekk war nañ koy fàttaliku ci di ko fàttali nit te mooy dimbalante boobu jàppalante boobu defar googu de maanaam yu mel noonu nga xam moo taxoon dëkk bi soosu loolu defe naa ne foo ñu koy fàttali dina ci am solo waaye nag bu nu ko maanaam lënkale ko ak ni ñuy dunde jamono ji danañ gis ne lu baree bari mi ngi commencé sopp lu sopp xëy na kon solos jotaay bi mooy nu alerte mooy nu ñu ne kat am na loo xam ne nii mi ngi raam te buñ ci waxul mën naa am bàggee fa mi àgg du gënal sëñ bi du nu gënal nit ñi du gënal tam ëllëg ñi nga xam ne moom la ñuy jébbal dëkk buñ ci tuddoon ay misaal yu gàtt xam ngeen ni fii sëñ bi bi mu fiy sànc ku nekk xam na ne bi mu sàncee fii mag ñi ku nekk daf laa dër ci barab nga sanc fa ci misaal am na wax nañu Cheikh Fall moom moom Cheikh Fall moom la sanc loon ci sowu si ndaam Abdourahmane ak noonu gannaaw mu sanc loo suñ Mbàkke Buso ci gànnaar sanc loo suñ Ahmadou Fadio ci wet gi mag ñi mu jox la barab nga sanc def kër goo xam ne nii yar moo taxoon ñu def ak jàngale loolu nag booy xool kër yi nga xam ne nii ñoo gën a jege ci biir dëkk bi tey nga gis niñ koy transformer transformation boobu nag defe naa ne lu mat a gën a bàyyi xel mooy kër yoo xam ne nii démb ak barki démb këru yarukaay la woon këru defar nit la woon ñu soppi ko def ko centre commercial loolu defe naa ne lu mat a gën a wut a xalaat la ndax ku ne xam na ne commerce mooy loo xam ne nii dëkk maanaam fu mu dugg ñaari dafay indaale jikko yu baree bari yoo xam ne nii day feeñ ndax dañoo wax ne nit ñi boo leen bëggee soppi fexeel ba soppi ni ñuy amee bis boo soppee ni ñu amee rek seeni jikko soppi tey boo xoolee tey mag ñi ni ñoon dëkk dënd Tuubaa bu njëkk seeni i jikko ni mu wuteeg suñuy jikko ñun ndax bu ndëkk dëkk bi ni ko suñu waxee dëkkub diine la woon dëkkub noonu la woon dañ daan bay di dunde yem waaye bi ñu soppi ko nekk nag ville commerciale gis nañu lu baree bari commencé nay dugg te loolu mi ngi raam te ci ñag bi la jëm kon loolu gis nañ ne lu gën a mat a bàyyi xel la ay kër yoo xam ne nii gis nañ ne xam nañu loolu defe naa du jër gën a yaata ku ne xam na tam dëkk tam buy avancé mbooloo mi di ñëw dëkk bi léegi xay na booba ay jamono yaatoo wutoon nii mu yaatoo woon léegi nag ñu baree bari dañoo ñëw bi ñëwee nag ku nekk da ngay indi naa léegi ne la socialisation dafay dépendre ci yow sa référence bi nga am la baax fa nga nekk mën naa bañu bokk ak li baax fi ñu nekk ñu léegi nag su fekkee dañu ubbi dëkk nag ñëpp ñëw na ku nekk da ngay indaale yow sa melokaan melokaan yooyu nag bu ñëwee su fekkente ne defee li ñuy wax adaptation bu yàggee mën nañoo dem ba ñooñee wàll waa dëkk bi jikko yoo xam ne nii bokk na seeni jikko te loolu tam defe naa ne mi ngi commencé feeñ ci misaal tey boo xooloon tey jumtukaay yi ñuy déplacé wu transport ba jaxasoo gi ciy am ni muy ni mu ñu jéggee dayoo léegi defe naa ne mat naa xool ci misaal tey bu fekkee sëñ ba muy sañ ci dëkk dana woon booy may defar doomu aadama danaa fexe ba góor ak jigéen duñ jaxasoo ndax ku nekk xam na ne jaxasoo góor jigéen yàq-yàq yu baree bari ci dundi askan wi foofu lay départ. xam na kër soxna yi góor daaw fa xam waxuma laa nag ñuy jaxasoo léegi nag comme dem nañ ba yu baree bari judd na ñu wàll ñu yu baree bari bañ ne léegi nañ def transport en commun léegi indi ay biis ci misaal bus yi léegi day. ñëpp dañuy dañuy duy ba fees léegi nga gis góor ak jigéen ku tafante ak yeneen yi ciy juddoo yoo xam ni ñu ngi koy gis di ko dégg léeg-léeg ñu gis ko ci barab yi muy lu xaw a doy waar naka noonu tam ci yenn xew yi yenn barab yi loolu lépp day feeñ ci biir dëkk bi day wuute li nga xam noonu la sëñ bi bëggoon dëkk bi demee noonu boo xoolee tam maanaam jiddi gi amoon maanaam sérieux maanaam farlu gi amoon ci mag ñi nga xam ne ni buñ masaan toog ci jataay mën nañoo toog jataay ba jóg doo dégg benn yëngu-yëngu doo dégg benn coow kenn wax sa morom noppi bañ jóg loolu ku nekk gis na ne dafay commencé di soppi tey bu ñu demee tey ba toog ci jataayu kilifa gi gën a mag ci dëkk bi ñuy jël micro nañ ñu may dégloo kon war na nañu xoolaat mbir kon li ñuy def folklore bu bari dafay gën di tasaaroo ci biir dëkk bi te folklore fu mu bari maanaam cosaan dafay commencé làqu moo tax spiritualité bi nga xam ne nii moom la sëñ bi sàncewoon dëkk bi dafay mel ne boo koy xool mi ngi gën a wàññi dëgg la nag moom bërëbu jaamukaay yàlla yi mën naa yokk bu baax a baax loolu kenn werante wu ko ñiy dem ci jàkk ji mën nañu gën a yokk bu baax a baax waaye itam ñaare ñu ngay gis ñu dem jàkk yi boo génne ñoom ngi gis yeneen barab yi loolu itam defe naa ne xay na moo tax ruuxaan ya a boog yëg-yëgu biir yooyu mooy manqué ba yëf yi dañ koy def automatiquement nii rek waaye dootuñ bàyyi xel ci la ko taxoon jóg loolu tam defe naa ne ci li ma gën a mat a bàyyi xel ci yëf yi ci la bokk am na leneen lu fi am loo xam ne tam bu njëkk nit ñi ci dëkk bi wuute gi amutoon solo lool ci dundi bi niveau yi ñu daan dundee wuute gi amutoon solo lool loolu tam dañoo gis ne léegi day commencé di fis day commencé di fis lool léegi boo demee bañ naan banlieue bi maanaam aaneeru dëkk bi nga dem fa gis na mel ñoom seen bopp ñu commencé di ko wax nga digg ci digg dëkk bi gis ni digg dëkk bi dangay gis wuute gi jéggi dee wuute googu nag dafay am lu muy jur ci ay yàqu-yàqu yu bare moo tax loolu tam defe naa ne luñ gën a war a mën a mën a war a mën a xalaataat la moom tam day ndax dafay jur ay melokaan yoo xam ne ni bokkut ak niñ bëggoon yëfi mel kon dafay mel ne soppiku mbooloo moo gis il faut que muy soppi kon soppiku lu mënti ñàkk la waaye nag li am solo mooy nu fexe ba ñuy dugal suñu loxo ci soppandiku googu di ko mën a orienté balaa mel neen ndax dañoo wax rek ne ci misaal tey lépp loo gis mu soppiku ci ci wàllu qualité doon na sax doon na soppiku ci wàllu quantité waaye nag dañ ko dul woon bàyyi xel buñ ko bàyyiwul xel nag ba mu soppiku ci wàllu qualité nag defar ga day gën a jafe da léegi jox ci misaal ne la mi ngi mel na ndox ak galax fi mu nekk nii tey boo jëloon ndox di ko seral dafay soppiku ci wàllu quantité par degré lay soppi waaye am na koo xam bu fa àggee ndox glace lay tudd léegi nag ki mës sax ki mës sax xam ne glace mës naa nekk ndox bu gisee glace day defe ne glace rek la mës nekk fekk na ndox la woon coono cosaan kon nag bu ñu bañoon glace nekk ndox nekk glace dañoo waroon teel a dugal suñu loxo ci soppantu googu par degré yooyu mën koo ak yemale yemale foo xam ne nii bu fa àggee waaye boo xasee bàyyi ba mu nekk. am ci biir dundiinu askan moo tax loolu ñuy adaptation sociale am solo il dañuy xool askan wi ni ñuy soppi ko moo tax ko gis maanaam nangam damaa bett rek mooy ko amatul seetlu waaye képp ku amul seetlu boo xoolee dundinu askan bu mënti doon boo xoolee nañuy ñuy da danga mën a xam ëllëg askan wi naka lay mel bu ko defee nag boo bañee ñu ak foofu nag nga teel caa dugal sa loxo loolu defe naa ne moo tax di contrôler ni sëñ bi léegi xool nit ñi ni ñuy dundee defe naa ne am na solo lool lool am na lu ñu tëddam xuwa euh, saqaaf yi mooy fossé culturel maanaam mooy nit ñi ni ñuy doxe ci wàllu matière dafa soree lool ak ni ñuy doxe ci wàllu xel moo tax nit ki mën nga koo soppi ñaari at mën nga cee soppi nit ci wàllu matériel mu jox la keneen nit waaye xel mi moom du dox ni mu war a doxe bu ko defee nit nag bu fekkee xel ma doxul ni mu war a doxe nga jox ko matériel bu bu baree bari da dul xam na mu koy jëfandikoo mën na koo gàllankoor ci wàllu yëg-yëgu biiram loolu dafay am ci dëkk li euh, ñuy làmb di ko gis loo xam ne ni kenn xamul nu mu toll te xëy na xel yi ko war a jëfandikoo tam na mu waroon na màgg ànd ak loolu des na asilaf tuuti loolu tam beneen liggéey la boo xam ne ni defe naa ne war nañ cee liggéey kon ay mbir yu bare daal nii defe naa ne waruñoo toog rek di wax ne dëkk bi maanaam maanaam dëkk spécial la ville nangam yu mel noonu xëy na kenn du waxtaan waaye kenn du ci wax dara dëgg man koo jàngat jàmmarloo moom am yenn nag yoo xam nañ ciy teel a jóg balaa ak fenn bi waaye nag buñ toogee rek naan dëkk bi sëñ bi nii la ko doxewoon te du te du soppiku mën naa am soppiku dana la bett kon daal sëñ Sam xam naa buñ bëggee lenn la jàpp nañ ne war nañ cee gën a farlu ngir mën a delloowaat dëkk bi xar kanam bi nga xam ne nii tam noonu lañ ci doon doxe te jàpp naa ne nag Euh, suñu ëllëg mën gën a baax suñu tey su fekkente ne jéemu ñoo dellu ci cosaan njàngaleem sëñ bi ak nam ci yaroon mag ñi jéem koo delloo si joxaat dëkk bi xar kanam boobee def naa ne dana am solo lool xasida itam lu am solo la bu nu ko jàngee moom it sëñ bi ni mu bëgg dëkk bi mel ko rek moom la ci bind xëy nag la leen nga déggu ne la sëñ bi ñaan na ko ba noppi dana am defe naa ne euh, ñaan lu am ba noppi demul sax googu jot kon li mu kuy ñaan ku nekk la ngay ñaan na mën mel ko la ngay ñaan kon nag réalisé gi nag ñun ñi dëkk ci dëkk bi defe naa ne ñun la war kon xasida ko jàng sëñ bi bind ci ne dëkk bi nii laa bëggoon mel ko kon taalib bu nekk danga ngaa war a def loo man ngir loolee nga mën caa jëmmal la kon daal loolu defe naa ne loolu mooy li nga xam ne nii moom lañ bëggoon a tënk ci tënk ku gàtt gàtt di sant di gërëm mbooloo mi nga xam ne nii ñoom ñoo taxawal jataay bi di sant ñi nga xam ne ñoo ko seqal asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatuhu yaakaar naa kàddu yi tënku na waaye leer na daf nga jàngat bu am solo ci nekkin bi nga xam ne noonu la nit ñi war a nekkee ci dëkk bi demee na fekk si nga sëñ Mbàkke ci li mu wax ne sëriñ bi dëkku diine la la sos mu mel ne ki fi war a nekk kon dafay war a nekkee diine muy comport ay comportement ak nam war a jëflantee ki bokkam dafa war a tënku ci li nga xam ne noonu la ko diine bëggee deme ni sëñ bi moom li nga xam ne mooy may nit nit ñi ngir ñu mën a mel noona xëy na waajal na ko waaye léeg-léeg nit ñi xëy na la war a nekk ak lay nekk mën nay wuute wax nga ay sabab yoo xam ne mën na koy waral ngir bokk na ci rek euh, dëkk la boo xam ne xëy na nit fu nekk lay jugee di fa ko waajalee woon euh, li am solo rek mooy adaptation bi nga xam ne moo war a am bu ñëwee ci dëkk bi day mel na loolu léeg-léeg day des kon dina am solo lool ñuy bàyyi xel loolu euh, indiwaat nga maanaam saytu bi saytu gi ndax aw nit fu ñu nekk euh, fawu ay soppiku danay am ci nit ñi waaye nag di leen fàttali ne lii mooy liñ bëgg ci dëkk bi di leen saytu di leen ko fàttali di leen del di leen wàññi saa yoo xamee ne jàdd nañ loolu lu am solo la kon day mel ne mooy lii sëñ Mbàkke doon wax léegi rek ci saytu bi kon yaakaar naa du ñu guddal euh, ci wàllu woowu tënk gi am na solo lool xam naa duñ guddal ndax day mel ne waxtu timis bi ci des bëriwul lool xam naa dañuy njëkkante rek jox sëñ Bàmba bu ko defee mu tàmbali bu julli jotee ñu julli incha allah après ñu continuer waat moom nag wàll gi nga xam ne moom la yor mooy wàllu koom euh, day mel na ñett yi nga xam ne moom lañ jël yëpp benn mënu cee dem bàyyi sa morom sëñ Fallou junj na ci wàllu koom xëy na léeg-léeg moom gis na ne sax mën naa indi jafe-jafe mën naa indi jafe-jafe waaye nag aw nit fu nekk moo mel noonu faaw mbirum koom mënta ñàkk ci nañuy jëflante kon wàllu way dana am solo it ñu jàngat ko nan la ko sëriñ bi bëggee woon fuñ ci toll ak nan lañ ko war a defee dëgg-dëgg kon dañuy jox euh, sëriñ docteur Khadim Bamba Ndiaye bu ko defee mu ñëw ci wàll woowu incha allah. asalaamaaleykum wa rahmatulah jërëjëf sëriñ Sam maa ngi nuyu bu baax sëriñ Mbacke Abdourahmane ak euh, sëriñ Fallou. ak nii lu ñu mën a men bu ñu sikkee sax sëriñ Touba leen. Euh, am na lu Serigne Touba di di def ci ñoom te képp koo xamante ni am na lu Serigne tubaa di def ci yow dina neex a waxal ci euh, bu ñu amee benn cap boo xamante ni euh, fixé nañ ko. yàlla may ñu tamit ñu am xalifa boo xamante ni ku dégg jamono la ndax dañoo toll ci jamono joo xamante ni jamonoy xam-xam la léppay soppeeku buñ boo nekkee ci jamono jamono ji ji transformé wu booy xëccu da ngay sonn. moom léppay soppeeku euh, day laaj ñun euh, dans les laboratoires université dañu naan il faut que ñu am connaissance dynamique ndaxte boo toogee di di xas nit ñi dañ naan da ngay perte sa temps ndax nit ñi dynamique bu ñu nekk du ñu soppeeku yaay jéem a xool ni ngay naxanteeg ñoom ba yóbbu leen fi nga bëgg mais dynamique bi moom bu déclenché woo kenn mënu koo téye Eh, boo xoolee eh, damay naan ci ci màggalu ren gi lu bëri lu échappé yoon wi mooy ñu yoroon ay snap ndaxte xëy na xalaat bi boole nañ ci tele yi boole nañ ci rajo yi mais lu snap bu ndaw boobu boo ko fàtte rek lu luñ li ñu ñi nga xamante ne xëy na am na beneen bët bu ñu xool li ñuy gën a jàpp mooy li gën ci snap bi ndaxte boolewuñ leen ci digital yi nga xamante ni. xëy na euh, ci lañu bokk ndaxte euh, yoon buy màgg day màggee ci nu nekk euh, Sëriñ Tuubaa nag dafa amoon projet de société xam nga nit boo amee projet de société am fit ñëw fekk foo amul dara nga bëgg fa samp dara loolu day tax lenn rek moo mën a stabiliser Euh, li Serigne Fallou wax Serigne euh, Mbacke Abdourahmane pour euh, li taxoon jóg dëkk bi muy dëkku leer ñu ñu garder ko boo bëggee garder dëkku leer gi mu doon fongo nga fàggul nit ñi seeni fu ñu mën a daane seen doole bis boo leen ko fàggalul rek ñu jëm koo fàggul seen bopp donc yoon yi nga xamante ni dina tax boo xoolee dëkk bi nu muy màggee parce que dëkku yaakaar la tamit ndaxte yenn saa yi dina nekk ci dëkku maamam ba dëkk bi am nu mu demee mu bàyyi ko fa ñëw daw ñëw sofu si Touba mun na bañ a xam philosophie Touba mën na bañ a xam dëkk bi lu ko lal waaye yaakaar moo ko fi indi te jàpp na ni dëkk bi tamit kenn du fi kenn du fi tase yaakaar euh, day loo loo xamante ni euh, day am euh, loo xamante ni dañ leen koy war a accompagner pour ñu mën a respecter li fi li fi dëkk bi li dëkk bi di laaj. loolu nag lenn rek moo koy defar ci àdduna bépp muy université euh, damay naan euh, xëy na mag sëñ Moustapha ñu jàngee bitim réew koo jàngee ci bitim réew boo ñu da ngay indaale jikkoy bitim réew ñu jàngee ci réew tubaab ñu jànge ci réew naar yi ba ñu ne dañoo ñëw indaale jikkoy naar yi moo tax boo bëggee defar dëkk dangay defar fu ñu jànge nga xamante ni xëy na bu Tuubaa taxawee nga xamante ni fépp fuy dëkk di nga fa may ay bourse bu mu ñu dem yóbbaale ji koy waa Touba ndaxte tant que yóbbaale woo fexe woo ba former ay nit dina jafe trop li nga bëgg nga am ko ndaxte am nañu dëkk boo xamante ni euh, damay naan diaspora murit bi fu ñu nekk ci àdduna xam-xam yu kawe yu ñu toll ci àdduna yoon bi jëriñoowu leen ndaxte yoon bi day toll foo xamante ni jamono da koo laaj mu ubbeeku lool xam-xam ñàkk fii mais dañ ko organiser wu xam-xam ñàkk fii mais dañ ko organiser wu euh, moo tax euh, lépp loo xamante ni dëkku diine la ci àdduna fexe nañu euh, boo xoolee Arabie Saoudi léegi la ñu commencé sax di xaw a doyadal tuuti seen aj ba ñu amee pétrole te bu seen pétrole bi jeex ñu ajaat yóbbuwaat seen aj fa mu nekkoon ndaxte am na loo xamante ni dina ko indi ci dëkk bi mën a tax dëkk bi des doon dëkki leer donte nag nit ñi fa nekk dinañ mën a daal seen doole ndax ñaar yooyu boo ci bàyyi rek beneen bi du mën a du mën a mat dëkk bi mën naa doon dëkki leer waaye mën naa nekk dëkk boo xamante ni nit ñi mën nañ cee mën nañoo góor ci dara garder seen nit di yokki da xam ne kii bombe la nit ñi di yokki da ngay taxaw di ko xool di ko observer nit ñi fan la ñuy ëllëg ci lan lañu war a liggéey mel ni ci dëkk bi lañu dëkk donc faw ñu euh, commencé di xool ci xoolin bu bu wóor dëkk bi nan la ñuy def ba mu am loo xamante ni mën naa génne ay ressources parce que nit ñi gëm naa ni man li ma gëm ci mu murit bu ci nekk rek Serigne Touba la gënal sa bopp te ku Serigne Touba gënal sa bopp neex kaa wax day baax euh, ñu commencé xalaat bu baax a baax ci yan fànn lañu ñu a ubbeeku ba fekk nit ñi mën na ndaw ñi bu ñu jógee bëgg a liggéey am fu ñu liggéey euh, Touba da ngay xool ni mu toll yëpp euh, nekk deuxième ville sur le plan économique sur le plan démographique du Sénégal amul benn industrie bu mag a mag boo xamante ni mën na absorber ay nit ñu bëri loolu dañ ca war a jóg parce que mënoo am dëkk bu mel ni Touba am ay moodu moodu fu nekk ci àdduna bi Touba Afrique de l'Ouest dëkk bii moo war a am foire bi gën a ngand ci Afrique de l'Ouest ndaxte mënoo am ay moodu-moodu yi nekk ci àdduna bépp yëpp doo leen dajale benn at ku ci nekk ñëw wax dëkk ba mu nekk la fa am nooy def ba mu am ci dëkk bi mënoo am aussi boo xoolee li war jumaa ji nga gis ay boutiques yu bëri ji fi jaay Touba war na mën a am centre commercial bi gën a ngand ci Afrique de l'Ouest mu sooy jumaa ji parce que réew boo ko créé wul activité rek. boobaa activité bi da lay échappé te activité bu la échappé day désordonné ku ci nekk di nga ko di nga ko defee ni nga ko ni nga ko xalaatee mais man jàpp naa ni université bi bis bu ñu fexee ba mu ba mu niru université murit ni nii ni wala mu niroog sëriñ Muntaxa rek man mu niroog rek waaw moom sëriñ bi lu muy incarné rek dina tax fànn yu bëri dinañ fa mën a tabax loo xamante ni nit ñi mën nañ faa góor dara parce que nit moom bu góorul dara rek moom euh, day neex day naqaree dëkkal day naqaree dëkkal parce que ndaw ñi ñi ngi bëri ndaw ñi ñi ngi màgg te dëkku yaakaar bi yaakaar bi warul tas te da ngay am problème pour gis fan la ñu war a mën a liggéeyee ba ba ba mën cee génn donc euh, jàpp naa ni war nañoo xool jàngat li xew mag jàngat li xew Vatican jàngat li xew ci dëkk religieux yépp ci àdduna bi ñu xam ni Touba foofu la toll tey Touba dafa toll foo xamante ni dafa bokk ci fukki dëkk yu ëpp li muy woote ay nit ñëw di leen fa fekk si boo bokkee ci fukki dëkk yoo xamante nii yaa ëpp li ngay woote nit ñu ñëw di la fekk si dëkk boobu da nga koy waajal yeneen dëkk yëpp dañoo waajal sax boo xoolee euh, Vatican presque une des plus grandes banques italiennes ñu ngi Vatican une des plus grandes banques italiennes ndaxte dëkk bi dafa ni foo mu am ay ressources pour mën a maintenir dëkk bi ndax assainissement dëkk sax xaalis a koy def te nit ñi pour ñu am xaalis foofu ñu liggéey parce que ku ci nekk bu liggéeyul du mën a am lu mu lu mu def ci biir dëkk bi moo tax jàpp naa ni euh, xalaat bi ñu war a xalaat yépp mooy euh, ni muy yokke yokkewu ko ci wàllu koom-koom te bu ko yokkewul ci wàllu koom-koom loolu danger la loolu ñu woy bombe sociale ci dëkk yépp mooy nit ñi di di yokk kuy am ku ñàkk yaakaar si fa nga dëkkoon ci takk takk sa fas ànd ak sa njaboot ñëw dëkk si Touba sofu ci Touba rek Touba di yokk euh, te xamuñu ëllëg fan lañu leen di yóbbu donc jàpp naa ni euh, université bi sëriñ bi bi taxawal euh, liñ ci war a njëkk a xool mooy nan la ñu fexe ba Touba nekk une des yu ëpp ay ressources commercial parce que bu ñu bu ñu ragal aussi euh, commerce bi ndaxte xëy na yàgg na fi depuis yonent bi euh, métier la woon te ku ci nekk zone bi nga nekk xëy na fii am na lu bëri loo xamante ni mënu fee am donc muy commerce muy mbay muy transformation loolu mënatul ñàkk ci réew mais Touba mënatul ñàkk foire commerciale ñàkk foire commerciale pour man loolu erreur la pertement la mënoo ay moodu moodu fu nekk foo dem ci àdduna bi di nga fa gis ab moodu moodu foo dem di gis këru Serigne baax nan la ñu def ba ñooñu ñëpp mën a dajaloo ci benn waxtu benn bis waxtaan la ñu gis seen dëkk yéen nan la ñuy def ba mu am Touba loolu tànk defuñu ko dina jafe lool ñu ubbil ay bunt xale yi pour ñu am liggéey ñu ubbil ay bunt ko si euh, commerçant yi parce que man jàpp naa ni lu wër jumaa ji bërëb bi sell gi mu sell lu wër jumaa ji warul nekk ay boutique jaaykaay jaayukaay war nañu mën a am centre commercial mag a waaw nga xamante di nga mën a garder spiritualité bi tout en permettre ñi nekk ci dëkk bi yëpp am ci lu ñu mën a suturloo ndax dëkk moom ñaar a ko yor euh, boo ko bëggee def bërëbu jaamu yàlla jaamu yàlla dafa ànd ak xel mu dal te xel mu dal dafa ànd ak bàyyi dépense ci biir kër gi te pour nga bàyyi dépense ci kër gi il faut nga am ci loo ci loo donc nit ñi ci lu ñu war a yëkkati yëngu war nañ cee xalaat bu baax a baax war nañoo fexe ba Touba lépp lu muy lekk lépp lu muy naan lépp lu muy jëriñoo mu ne loo xamante ni ci ci dëkk bi la jógee. donc xam naa ni comme dégg naa solo waxtu noot bi jot na ma jox la kàddu ba si kanam jërëjëf. aleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf docteur ci kàddu yi tënku na waaye leer na ni am na solo yi day mel ne man nañoo wax ne xëy na nit fu nekk dafa am ay besoin besoin yi nga xam ne moom la suñu fàllu doon lim léegi muy yoo xam ñàkk ci nit ki mu am ko euh, ngir nit ki ngir mu mën a dund faaw dana am ay mbir yoo xam ne da koy soxla te yooya daf caa bokk mooy mu dund te tax mu mën na dund ca nam ko bëggee wala nam gënee day mel ne mooy faaw mu am ci loo xam ne ca lay góor comme noonu nga ko waxee loo xam ne ca lay jàpp te sax mooy li sëñ bi digle woon sëñ Fallou wax na ko léegi mooy ndigal loolu nga xam ne waxoon na ko ne saa yoo xam ne bëgg ngeen lenn na ngeen fexe ba defal ko seen bopp kon lay tax ñu man koo defal suñu bopp mooy faaw danañ am barab yoo xam ne fa la ñuy faggoo lu lew ngir suñu yittey ñu mën koo amal waaye nag yittey yoon wi ci boppam nga xam ne mooy li a yaatu ak yittey dëkk bi ñu mën koo amal loolu nag loo koy waral mooy am xëy kon daa mel ne ci ni nga waxee day mel ne manqué na lool ci dëkk bi. te loolu day mel ne xëy na euh, nañ waroon a taxawoo wàllu woowu ci wàllu koom ak ci wàllum liggéey nañ ko waroon a saytoo dafa des muy yoo xam ne mënoon nañ koo exploiter lu mel ne euh, daje bi nga xam ne ñu ngi koy daje ci dëkk bi nga xam ne Touba bokk na ci dëkk yi nga xam ne comme ni nga ko waxee fukki dëkk yi nga xam ne mooy yi nga xam ne ñoo ëpp lu ñuy woote aw nit di leen wuy si kon day mel ne loolu rek mënees na ko exploiter waaye nag mënoon nañu exploiter yi doomi Touba yi nga xam ne ñi ngi bitim réew nekk ci barab yu wutee wutee nga xam ne euh, expérience ba nga xam ne am nañ ko ca barab yañ nekk mënoon nañ leen woo laaj leen foofa na fa nekk nam mel bu ko defee loolu ñu mën koo jëfandikoo kon day mel na la yu baree baree bari yoo xam ne manees na koo jëfandikoo ci biir dëkk bi ci wàllu koom ci ay barab yoo xam ne barabu liggéeyukaay la yoo xam ne ñi nekk ci dëkk bi danañ fa mën a nekk mën a fàggu ndax noonu nga waxee dëkk la boo xam ne nit ñi dañuy ñëw fuñ toll dañuy ñëw population bi di gën di yokk kon ngir mu mën a ànd ak yokkute ni nit ñi yokk faaw barab yi nga xam ne fa la nit ñi di wute am xëy faaw dafa war di yokk loolu mooy li nga xam ne mooy li war a nekk waaye day mel ne bu jafe-jafe amee ci wàll woowu mooy nit ñi ñu ngi yokk waaye fañ mën a wute am koom yokkuwut loolu jafe-jafe lay indi comme noonu ko ko kon xam naa waxtu julli day mel na fi ne jot na ñaari minute moo ci des bu ko ñu waaj euh, buñ jullee pare incha allah am na ci mbokk yi nga xam ne teew nañ danañ indi ay commentaire ci waxtaan wi incha allah daxay àddina ak bu àllaaxira dëkk bi dafa bëggoon mu doon dëkk bopp day jàppandil nit ki mu mën a am texe googu wala yaari texe yooyu ba xasiida gi muy ñaane lu bari lu bëgg mu ne ci dëkk bi mu tudde ko noonu kon yaari texe texe àddina ak texe ak àllaaxira li bëggoon rek mooy dëkk bi di jàppandal jàppandal ñaari yaari texe yooyu bu ñu seetloo yi mu tudd yëpp foofu la foofu la dugg ni ko sëñ Fallou waxee nag mel na ne ni mu ko bëggee woon ak fi ci tollu fi ne nii am na ci wàll yoo xam ne so xaw naa sore am na ci loolu day mel ne ak dellu ginnaaw la cee am ndax bi mu ko sañcee yàggu fi waaye ginnaawam bi ñu fi mel na ne doon nañ lu ci bari doon nañ dox ci ni ko bëggee waaye ginnaaw bi ak dellu ginnaaw ci wàllu war da cee am sëñ xaadim ñi dafa wax boo xam ne rëy na waaye man wax dëgg yàlla lu ma yàgga gisee noonu mooy dana bombe sociale la da ko xoole ci wàllu koom moom mooy ni ñàkkee fu ñuy wuteem koom ci ay ndaw yoo xam ne dañuy bari te amul fu ñu mën a wuteem koom ci an ci anam yoo xam ne daal yu doy la waaye du rek wàllu googu waaye wàll yëpp la wàll yëpp la man wax dëgg yàlla euh, saa bu may dox ba gis ay ndaw yu baree bari dajaloo te ma xam ne ñii amut amut fenn fu ñu leen jëme damay tiit loolu bombal dëgg-dëgg am mbool ay ay ndaw yu bari lool te amul fu ñu leen jëme nga xam dañu ne bàyyi rek loolu bomb dëgg la du rek ci wàllu koom waaye wàllu ci wàllu yëpp wàllu social gi sëñ Fallou mooy dëgg-dëgg tudd nañ ci nos nos nos nos bi foog naa ne lépp foofu lay dellu ndax dëgg-dëgg nag mbooloo dafa war a am fu ñu leen jëme dafa war a am fu ñu leen di jëme te ma ngay tàmbalee ca ndaw ña ay ndaw dafa war a am fu ñu leen di jëme sëñ Moutalla li mu daan wax li taxoon mu jox yitte am njàngale da daan wax ne lépp lu ñuy jàmbat buñ fexee ba njàng mi tasaaroo rek lu ci bari dina saafaraw kon ndaw ñi dañ na ñoom ñëpp dañ leen war a jëme dañoo war a dañ leen war a boole jëme ci jàngal leen ci njëlbeen ak nag bu jàng ma jàll itam dañ ko war a dopp di leen war a yàq ci wàll yëpp daal waaye ndaw ñi wax dëgg yàlla dañ leen seetaan rek amul nos boo xam ne mooy jëme ndaw ñi fenn njëlbeen ngir sëñ bi bi mu fi nekk dafa amoon nos boo xam ne mooy jëme ndaw ñi fenn ba ñëpp daanaka ñooy bokk fuñ jaar buñ jokkee fuñ jaar rek danañ jege ci ay xalaat ak i bëgg-bëgg ak yu baree bari waaye bu fekkee nag nos boobu amut li liñ tudd mooy bi Touba ubbi ko li ñu jóge fu ne ñëw bu ñëwee nag te amul fu ñu leen jëmee ku ne day dafay nekkee na fi nekkee woon rek te bu ñu fi ëppee day mujj fa ñu yóbbaale ñu fekkoon dëgg lañ fekke woon foog naan yëfi dëgg-dëgg foofu la moo tax sëñ mu taxaa kon lii mu naan mu jëm ci wàllu jàng ak yar dëgg-dëgg foofu la foog naa ne foofu la saafara si nekk waaye ci kaw nag ñu xam ne du ne lii naa naan rek moo koy saafara lii ab junju lay doon li mu naan ab junju la waaye xam nañ ne xam nañ ne ñi aajowoo ñu jëme leen fenn lu ñoo jàngi fii mi complexe bi du rek université waaye complexe la ndax njàng mi li tàmbalee ci suuf ba ci kaw waaye nag xam nañ ne doyut waaye ab junju la wane ne fii la yoon wi ne li ñuy mébét kon mooy loolu yaatu yaatu lii ab junju la ci ñu mën leen a ñu mën leen a jëme fenn ñu mën leen taxawu am fuñ leen jëme te loolu dëgg dëgg li ko mën sottal mooy ay jàngu ci dëkk bi ay jàngu yoo xam ne kilifteef bi moo koy samp ci dëkk bi mu mu yaatu fi tasaaroo fi bari lii ab junjure ci rek waaye du moom rek moo koy sottal waaye mu tasaaroo ci dëkk bi ci anam yoo xam ne liñ bëgg ci ndaw ñi danañ ko fi mën a jëre day daal ànd ak yëpp bu boobaa yi ci des yëpp mën naa ànd ak moom tudd nañ fi sëñ Fall wax na fi ne euh, ab yar moo daan am ci kër yi waaye léegi am na kër yoo xam ne daañ fa daan yare léegi fa lépp daa duggante lépp dafa duggante ndax fàggulu lew gi ñu fi tudd te mooy tax nit ki am lum goor ni ko suñ xaadim di waxe fàggulu lew googu dañ koo desal ginnaaw moo tax ba te mënuñoo ñàkk a dund moo tax fa nga xam dañ ko daan def daara léegi ñu di ko def centre commercial ngir am ngir am lu ñu dundee ndax dañoo desal ginnaaw fàggul lew buñ ko desalee ginnaaw nag te mënuñoo ñàkk dund danañ seet buñ ko amee foofaa tane ndax lu néew néew loolu dana lew moom ndax ñoo ko moom buñ ko kee dana lew waaye am na ñuy dugg sax ci yeneen am na ñuy dugg sax ci yeneen ngir am luñ luñ góor góor googu nag yàlla doon góor gu am gu am gu solo kon daal li ma jàpp dëgg ma mooy taxawu ndaw ñi daal foog naa ni lépp foofu la war bu fa tàmbalee rek ji cër sépp mën na ca topp mooy tax dana mën a tax ñu mën di fàggu lu lew ba lépp lu jëm ci wàllu euh, wàllu koom lañ cay séntu ñu mën ko ca am ak it nag it ñu xam euh, yaatuwaayu yaatuwaayu yoonu murit muy sëñ bi bi mu ko yoree lépp la daan toppatoo lépp lépp la daan toppatoo muy wàll yëpp wàll yi surtout yëpp la ko daan toppatoo kon dina war a xam ne jamono bi nekk itam yoon bi daa war di toppatoo yooyu yëpp sëñ bu mag bi daana joxe jiwu waxuma jox ko ñu koy bayal de jox ko ay nit ñuy bayal seen bopp am na dégg naa nawet boo xam ne dafa am traitants yi ko ci bëggoon nopputu nit ñi fay leen prix boo xam ne baaxul ngir jënde ko seen gerte bi ko sëñ bi yëgee dana buñ ko ko jaay nañ téye seen gerte mu lebal leen mu lebal leen xaalis ngir noggutu gi ñu leen noggutu la bañ ñu téye seen gerte bañ koo jaay ki ki bëgg ki leen bëggoon noggutu mu abal leen xaalis bu déwénee ñu ji ñu loolu ñu def ko jiwu ñoom jiyaat loolu mooy war na ne wàll yépp la yittewoo loolu itam nag mënuñ ca ñàkk a dellu xam ne yoon wi wàll yépp la la war a yittewal ndax ni ñu ko waxee rek koo xam ne tax ak àddina gu alaaxira la bëggal nit ñi bëggal ko waa dëkk bi ñi fi dëkk ci jëmm ak ñu fi dëkk ci xol yépp kooku kon lépp lay yittewoo lépp lay taxaw wàll googu daal foog naa ne euh, fii la lu bari di ci saafara wa saam maa ngi jégg lu baax asalaamaaleykum wa rahmatulah salaam wa rahmatulah wa barakaatu. xam naa njëkk ñuy jox euh, sëriñ bi ci topp dañuy lim leen ci kilifa yi nga xam ne teew nañ ci jotaay bi di sant mbooleem ñi nga xam ne bàyyi nañ seeni i itte ñuy si mbokk yi ci jotaay bi. buñ ci tuddee sëriñ Cheikh Mbacke moom Cheikh Mouhamadou Mountakha teew na fi di ko sant bu baax ci teewaay bi sëriñ Khalil Lo teew na fi sëriñ Khalil mbakki moom sëñ Moustapha Absa xew na teew na fi sëriñ Lamp Mbacke moom sëñ Mountakha moom it teew na fi sëriñ Cheikhouna Abdoul Wadoud mi doon wax léegi ak sëriñ Jiri Mbacke moom sëriñ Cheikh May moom it teew na fi sëriñ bu Bousso moom sëriñ Bousso Ilimane moom it teew na fi. ak sëriñ Afia Niang di ko sant bu baax it ci teewaay bi sant nañ bu baax sëriñ Saliou jaxate moom daarul maarif al islamiya moom it teew na fi sëriñ Soham Bousso Abdourahman sëriñ Mor Bousso ak waa Touba sa kanam it indi fi délégation bu am solo ci njiital sëriñ Abdou Fatah Guèye ak Alazar sëriñ Saliou it yónnee na fi délégation ci njiital sëriñ Assane Diouf ak ñi mu Serigne Jili Kebe yi teew na fi naka noonu daayiratu Rawdu Rayaahiin indi nañ fi délégation bu am solo yi ak waa Daaray Kaamil moom it teew nañ fi ak waa association commerce commerçant yu marché occasion teew nañ fi ak mboolem mbokk yi xam ne daal teew nañ fi ak ñi ñu gis ak ñi ñu gisul ñëpp ñu ngi leen di sant bu baax kon xam naa ngir njëkkante waxtu wi dañuy jox kàddu gi Serigne Cheikh Mbacke moom Cheikh Amadou Mountakha bu ko defee mu indi ay jàngat rahmatullah alhamdulillah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa wala asalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu yi maa ngi am mbégte bu baax ci teewaay waaye leen nuyu rawaat na yéen kuréel bi nga xam ne di ko teg ci seen loxo yéen ngeen liggéey bu rëy ba tey jii di rafetlu waxtaan wi itam ñi nga xam ne ñoo ko sekkoon tàmbalee ko ci sëñ Mbàkke mi doon wax ci wàllu diina ji ci Touba tolluwaay bi ak euh, fi mu jaar waaye di rafetlu baax itam sëriñ Fallou loolu li wax ci social sëñ Bamba moom tam noonu mu waxee ci économie di yoo xam ne dara mënu cee ñàkk di sant yàlla bu baax itam ci ni ko sëñ Mbàkke waxee ci dox bi nga xam ne wàllu diine gi dox na dox na ko am na ci ay jéego yu mag a mag yu dox wàllu xam-xam itam am na ay jéego yu mag yu dox waaye ñu am yaakaar itam ne ah, ginnaaw jéego yi nga xam ne mag ñi def nañ ko ci ba si ñu am yaakaar ne euh, mu jëm am itam muy complexe bu àgg mu bu àggee bañ tàmbali ko dana gën a baax ñu gën a jëmee suñu kàddu ci benn point rek xëy na boobu kan dafa gën a jëm ci wàllu économie muy dafa mel ne euh, wàllu wutal nit ñi liggéey dafa mel ne moom dañ ko boole suñu programme wàllu wutal nit ñi liggéey Euh, ci misaal boroom alal yi bari na li mooy li nga xam ne mën nañ ko euh, mën nañoo def ay société yoo xam ne li ñu gën a jublu mooy nit ñi mën a liggéey dafa mel ni jubluwoon ji wàllu googu kon dama yaakaar ne wet googu moom war nañ cee gën a def yitte bu baax di ko gën a waxtaane di ko gën a soññee bu ko defee nag am na ci lu point boo xam ne gis naa ne nag bokk na ci lii gàllankoor loolu mooy ay benn benn yi nga xam ne ñu ngi koy jéem ci seen alal yu ndaw léeg-léeg ñu jox ko ay nit waaye ñàkk lenn ci jikko yi nga xam ne wax dëgg yàlla doy na waar ah jikko yi moom dañ ñun dañ jàpp ne sax avancé nañ ci loolu waaye boo ko seetee dafay mel ni des na ginnaaw lool ndax jox fi eh, nit eh, sa alal am ci la nga bëgg dafa bari lu dafa dafa bari lool mm, lu lu lu lu ci am problème boo joxee seen nit nit nit kenn. joxe sa alal ngir bëgg jox ko nit ngir bëgg bëgg mu liggéey ngeen bokk liggéey kon xam naa ne tam dana baax nag ñu ci ñu loolu moom kenn xëy sax kenn du ci jiw kenn mosu cee jóg ci jéem a def seet ñu gën a defaraat ci koy ba ñi gën a am amaana gën a gën a gën a wóor waaye loolu tam lu ci am am solo la waa ànd ak nag ñu gën a soññi nit ñi nag ci ñuy gën a def ay société waaye di gën a jublu loolu nga xam ne ñu jublu rek duñ man man naa ba yoroon sax ndax ndax ñu ànd sax nit ñi moom loo leen gën a jariñ rek gën a gën a jariñu loo gën a yëkkati gën a avancé gën a yëkkatiku waaw waaye teewul rek gën cee gën cee dugal daal am yéene nit ñi liggéey ndax nit ñi liggéey rek daanaka lu bari ci lay defaroo ci la diina ci gën a defaroo mat ci la société bi di gën a di gën a baaxe ah, ci la ci la ci la njàng mi di gën a gën a avancé itam nag waaw kon nag xam naa damay yemal foofu sama kàddu rek sa ginnaaw ma sante bu baax jërë leen ñi bisaako mun a xëyal bisa waa kay jërëjëf sëriñ bi ci kàddu yi tënk yi te am solo lool xam naa dañuy woo sëriñ Abdou Fatah Gueye Touba ci kanam yaakaar naa Touba ci kanam it kuréel la goo xam ne ku am solo la buy liggéey ci wàllu nu nit ñi ci lëkk bi ñu ngi ciy liggéey liggéey bu am solo kon dina am solo lool it ñoom it ñu indi seen jàngat ci li nga xam ne moom lañ déggee ci waxtaan bismillah li ca xam-xam ba ak mooy mu am lu jàpp bu loolu amul rek ngir mu jariñoo xam-xam ba ak yar ba dana jafe loolu nag di jafe-jafe boo xam ne ni ko ñëpp seetloo lu lu lu mat a bàyyi xel la euh, ci biir loolu nag kon da ngay gis ne jataayu wata waxtaan bi aspect bu am solo am na ci donte yëpp am na solo mooy lu jëm ci wàllu économie ni nga xam ne sëñ Cheikh moom sëñ Mountakha ñoo koy ziyaare bu baax wax na ko léegi te mooy waa dëkk bi di góor góorgóorlu ci fexe ba nit ñi di amum xëy xam nga suñ xaar ci am goo xam ne dafay mel ne booy xool ndono la kay am nit ñi mën xëy day mel ne nga xam ne ñooy yaxantu ci dëkk bi tamuy jàll tamuy de doon loo xam ne par ndono la ku nekk way juróom da daan yëngu ci commerce mu ñëw wutu ko ca nekk ca du teg jeneen yeneen jéego yu bees loolu dafa mel na ne boo koy xool mooy xaw a te dëkk bi ci wet googu la ca toppaat tamit mooy dafa mel dañ koo xaw a ragal dañoo xaw a ragal fiq ay jéego jëm ci taxawal loo xam ne nit ñi danañ ci mën a danañ ci mën a yëngu li ko def mooy bu ñu waxee wàllu industrie ñu bari ci mag ñi nga xam ne ay commerçant lañ wala mën nañ dara ñaare bu ñu koy dég-dég bi ñu ciy am li ma koy faral di wax bari na dañuy jàpp ne bu ñu waxee industrie rek xel day dem ci automatisation xel day dem ci industrie yu mag yi ñuy gis ci télé bi mu nekk ay ay machines yu yu yu jéggi ci wàllu xereñ ba noppi rëy loolu te fekk ne bari na ci yu ñuy wooyee ay industrie yoo xam ne àggut ci dayoo bañ koy yéegal dafa bari ay ay ay ay catégorie li ma koy nett li bari na boo demee dëkk bu mel ne Chine nga xam ne ñoo daanaka ñoo yor ñoo yor industrie àdduna bi man nga faa dem ci bërëb boo xam ne dañ naan la ab usine la waaye boo fa agsee doo fa gis dara lu jonxle wala loo xam ne lu yéeme lay doon ay nit rek nga fekk ci misaal bu mu mel ni mii ma sol bu ñu ko doon liggéey mën nañoo rangale fukki nit kii ñëw baat bi kii ñëw loxo bi kii ñëw nangam ba ci mujjantal nga kooku boole taqale ñu paqueté ko dóor ci tampon wala usine sàngam ko liggéey te fekk na ay nit doo nga toog di ko ñëw waaye dafa laaj ñu nos ko méngale ko ak fi jamono toll bu loolu amul rek day daal di nekk liggéey boo xam ne eh, liggéey boo xaw a doyee di lay doon te bu boobaa daay bi mu war a am du ko am loolu nag noonu nga koy fekki foofu noonu nga koy fekki yu bari beneen bi ci topp mooy nit buy am benn produit bu muy commercialisé di ko importer bu baree bari bu yàggee war naa xalaat ci lii nu may ma nag ba tàmbali ko mën a defar ci dëkk bi la ci desaat ba tey ci wàllu eh, lépp loo xam ne nit ñi dañ koy jëfandikoo moo xam lu ñuy lekk la wala lu ñuy naan la wala lu ñuy sol la wala fi ñuy dëkk la wala bërëb fajukaay wala dem ak dikk dañoo war a góorgóorlu ba mooy emploi daanaka mën naa nit ñi am lu ñu jàpp loolu nag buñ xoolee ci dëkk bi li ëpp ci yooyu nekkul ci loxo waa dëkk bi daanaka defuñ ci dara euh, ba tax na ñu jàpp ne xalaat bi foofu la war a jëkk jëm ndax nit balaa muy xalaataa jëm ci yokkute ci wet yu baree bari yi mënta ñàkk daa war a am ba pare la ca toppaat tamit mooy tamuy jafe-jafe dëgg-dëgg mooy nit ñi seeni xalaat li ci ëpp dañ koy xalaate li teew tey jafe-jafe bi xew bi xew tey daal nañ ko song ci ay xalaat song ko jéem koo lijjanti waaye la ñëwagut wala li nga xam ne mi ngi ci suñ kanam te accès bu doonagut bu jàmm loolu moom boo ci doon wax jëm sax mën nañoo jàpp ne mën nañ lay xoolee bëtum li ngay def day tardé yu ni misaal bi ma ciy joxe mooy bu dëkk bi amee grand place yëpp rajo yëpp ci wàllu ndoxum naan bi la ñuy waxtaane boo dee def leneen sax lu bokkut ak loolu dañ lay jam na leen lii mooy di gën a jàmp dëgg la ndox yi di gën a jàmp waaye ndox taw yi bu ñëwee noonu lay mel buñ demoon ba mu yàgg lamp mbedd yi fay dëkk bi lëndëm actualité bépp foofu lay jëm nga xam ne booy wax ci leneen loo xam ne bokkut ak lii tey deesu la mën a dégg te ab dëkk ngir mu war a jëm kanam dëgg faaw mu am vision bu gudd te yaatu te sori rawatina dëkk bu mel ne Touba nga xam ne mag gi dafa gaaw waaye dëkk bu mel na Touba nga xam ne téeméeri nit yoo fi jël juróom-ñaar fukki yi amaguñu fanweeri at xëy na sax loolu Sénégal yëpp noonu la téeméeri nit yoo jël. juróom-ñaar fukki ya seeni at matagul fanweer. loolu nag bu amee ci dëkk. farlu lool war naa am ci nu ñuy def ba. bu ñu leen jàngalee yar leen ñu fexe génne am lu ñu liggéey. bu loolu am benn ci yooyu bu jiitee bu jiitoo bàyyi ba ci des faw gàllankoor am faw jafe-jafe am te mooy li nga xam ne moom moom lañu mën a jàngate ci waxtaan boo bu dee nag ci wetu euh, wet googu nag ci solution yi bokk na ca kuréel gu mel ni Touba ca kanam ndax it léeg dinañ toog ci ay jataay di waxtaane ay jafe-jafe di xalaat ci ay solution ba gis ne solution ngi si waaye mu mel ne léeg-léeg solution yi bu juddoo tamit samp ko ja jàppale ko accompagner ko ba mu dem day nekkaat beneen jafe-jafe waaye solution bu mel ne Touba Ca Kanam nga xam ne toujours damay faral di wax ne ñu ko waxee buñ ko xool wala ñu koy moomale aw nit nañ jàpp ne moomeelu yoon wi la genn kilifa la am te mooy Serigne Mountakha ki fi nekkal Serigne bi ñi ci des ñëpp ñoo ci bokk yam buñ ko. buñ ko ci jàppalee lu baree bari ci yi ñuy wax man naa saafaraw ndax euh, xam-xam akub yar mën naa liggéey lu baree baree bari daanaka mooy lépp waaye faaw am leneen lu ci dolliku te mooy nit ki amum xëy waaye faaw tamit ñu waajal bi te mooy environnement bi nga xam ne ci nit kiy dund damay faral di joxe misaal ne léeg-léeg dañuy jàpp ni nit ñi soppi seenu dundin wala soppi nit ñuy xalaat a dafa xaw a jafe waaye déedéet léeg-léeg li ko li tax muy xaw a jafe mooy environnement bi ñuy dund moom la ñu war a njëkk a soppi bu ko defee nit ki adapté wu ci day yomb ndax euh, agence bancaire yii fi nekk néew na ku ciy dugg te boo duggee ci banque bi rek daa doo daal di soppi sa comportement téléphone sax boo koy wi boo waroon a wax ci kaw nag ngay mujj di wax ngir environnement bi nga nekk moo laaj boo yoroon aw këyit wala boo sànni nga dem xool fa poubelle nga dugal ko fa waaye boo génnee ci mbedd mi nag coow li bari nit ñi yuuxu booy wuy téléphone la ngay ànd ñoom di yuuxu boo gisee mbalit bi bari boo yorewu kayit danga nga koy sànni ci suuf wala mbuus waaye boo gisoon mu seet wecc lépp tegu ciw yoon bu boobaa noona ngay adopté woon dinu lu doxe lu mel noonu nag moom ngay sekk ba tey ci wàllu économie bu fekkee ñi nga xam ne dañoo ñëw ci dëkk bi nañ waagal na jàpp ne dëkk ba boo fa demee kat am na yoo xam ne dañ koy bañ waaye nga ñëw fekk la nga doon yaakaar demewut noona bu boobaa da nga daal di delluwaat yow ca na doon doxee te loolu li muy tekki mooy kon waajtaay war naa yaatu ci wet yépp ba nga xam ne ku ñëw dañ nga ciy mën a adapté wu. ci biir lool nag Touba ca kanam moom bokk na ci ay xalaatam sexe ba ndaw ñi am xëy ren ji situation bi léeg-léeg da nga programme dara ba mu yàgg mu xat waaye bokkoon na ci te fi mu ne nii ñu ngi koy étudier nu ñuy def ba am suuf su bari def fa ay tool te bay mbayum mii nga xam ne mooy jëm ci ci boole yu ni mel waaye boole ci ak càmm ndax bu ñu waxee ne màggalam Touba li ñuy rey ci ay nag ak xar ak euh, gileem ak bëy yu xayma nañ ko ci ëpp fanweeri milliards ci la ñuy jënd loolu économie bu bare bari la te yëmul ci loolu ndax xam ngeen ne nag yi ñu fiy lewetal rek la cay toppat ci der yaag weyaag yooyu yëpp di benn chaîne de production boo xam ne lim mën a jur ci ay xëy kenn xamul lu mu waaye loolu faw dañuy dox jëm ca nag te dox jëm ca dañ ci takk too jàppalante ca ndax buñ ko bàyyee ñenn rek day sooxee wasalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ Abdoul Fattah kàddu yi am na solo lool day mel ne ni ñu ko doon junjee sànq rek day mel ne Touba ci kanam bokk na ci solution yi nga xam ne mën naa lijjanti ci li nga xam ne moom la ñuy jàmbat kon yàlla na suñu borom gën leen a taxaw ci barke sëriñ bi ba li nga xam ne moom lañ fas yéene liggéey ci dëkk bi suñu borom kàttanal leen bañ mottali ko dañu àndoo ñoom. jërëjëf Serigne Abdoul Fattah kon dañuy woo Serigne Charles bu Sambour Rahman mu indi ci ay commentaires jëm rek mënoon nekk am na nu ko suñ seexu naa waxe moo gën a jekku wala fi ni mu ko waxe fañ mahmoul bi maanaam fañ fañ fañ fañ fañ war a nekk loola dama jàpp ne lu ci nekk war nañ ci liggéey liggéey boo xam ne war nañ koo xam man koo soppi ay objectif te loolu yëpp dañuy dellu ci sëriñ bi ci boppam am mbindam ak mag ñi mu yaroon seenu njàngale ak ñi ko fi wuutu ba ci Cheikh Mouhamadou Mountakha mi ndax moom sëñ Xaadim juñu ñu ko léegi moom rek buñ ko xoolee ak école la ndax damay wax ne planification stratégique lu munta ñàkk la te gis nañ ne moom li muy ay junjam yépp ay stratégie lay junj ay waxam yépp loolu nga ciy seetlu ba ci université bi kàddu yi ñu ci yëkkati woon nga xam ne barab bii la ko yëkkatee damay wax ne ci wàllu jàng ak jàngale daanañuy am ñuy def ay plan quinquennal juróomi at wala plan décennal fukki at nga xam ne wala boog ñu ne fanweeri at waaye kuy wax ñetti téeméeri at moom néew na ñu dégg ko ci àdduna bi fenn kooku kon gis-gis bu sori la kon lay am moo tax jamono jàpp na li sëñ Cheikh naa wax ne li muy def nii dañ ko war a jàppee ak junju kenn ku nekk jéem a dox doxin woowu moo tax ma jàpp ne lu mel ne Touba ni ko sëriñ bi bëggee war nañ koo jéem a euh, dellu ci mbind sëriñ bi tënk ko anam goo xam ne danañ mën ne kat ci wàll wii wàll wàllu wii li sëriñ bi wax mooy fii lañ ci war a yegg wàllu wu nekk ñu mel ne dañ koy formuler ay objectif yu sori toll it ñu di ko natt mu doon luy tege ci xam-xam mooy waaqan bi wërta nekk rek lu ñuy observer nii waaye war nañ koo wees ba man di joxe ay chiffres wàllu xam jàng ak fii lañ ci toll di joxe ay chiffres wàllu économie fii lañ ci toll joxe ay chiffres wàllu social jafe-jafe yi moo am di ci joxe ay chiffres nga xam ne loolu lépp kon day tege ci am njàngat mu leer moo xam ne dañ koy mën a teg bu ñu xamee ni fii lañ toll te xam nañ fañ war a yegg dinañ xam écart bi bu ñu xamee écart bi dinañ jéem a xool yan jéego la ñuy def pour gën a jege ndax jàpp naa ne moom fii àdduna mi ngi du mi ngi am diggante fii nekk ak fañ war a nekk fokk muy am écart ndax loolu mooy tax. alladi xalaqal mawta wal xayaata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala ibtilaa boobu nattu boobu foofu lay feeñe toujours waxtu wu nekk rek dañuy dox jëm ca waaye musuñ jamono moom àgg ci amatul fa fañ fañ war a nekk lañ nekk moom jàpp naa ne ndax yonent yi amuñu ko woon yaakaar naa ne kenn musu ko am te yaakaar naa ci kanam yi dana jafe waaye nag nit ki li ñuy sàkku ci moom muy dox jëm ca ngir nga dox jëm ca nag fa nga jëm war naa leer ci sa kanam ñu xam ko nga xam ne ndaw ñi gone yi mën nañ koo xam ci anam ga tolloog ñoom mag ñi xam ko soxna yi xam ko ku nekk ci dëkk bi xam ne lii sëriñ bi bëgg ci dëkk bi ci sa niveau ba nga toll nga xam ne jéego booy séqi da ngay xool ne ah man kat danaa jëm danaa jëm foofa loolu bu fekkee ne for fexe nañ ba liggéey ko bam leer ci boppi ñépp ba noppi fi ñuy nekk waxtu nekk ñu di ko documenté di ko xam xam-xam ndax damay seet ne ñun ñun ñeneen ay ñëw di ñu jàngat di ñu yaakaar naa développé guñ ko suñ bopp te man nañ ko def jàpp naa ne wàllu économie suñu xaadim mii luñ ko ci sant ci dëkk bi ci wàllu googu xam-xamam dana ko yomb keneen ak keneen ci wàllu googu xam-xamam dana ko yomb jàpp naa ne kon kuréel yi fi nekk ci Touba jàpp ci kuréel yu am solo yoo xam ne ñu ngi liggéey liggéey yu am solo war ñu jéem a xoolaat suñu doxalin ci jéem koo tënk ci xool fañ war a yegg ak fi ñu toll di am ay nattukaay di man di def ay évaluation kenn ku nekk mën a xam ne kat fii man jéego yi falaa naa ko séqi par rapport ak fii nga xam ne fi lañu war a yegg kenn ku nekk ca domaine ba nga nekk jàpp naa ne loolu daal man damaa gis ne lu ama am solo la loo xam ne moom euh, waxtaan wi da ciy nekk rek ak tàmbali bu ko defee kuréel bi ak yeneen kuréel yu mel na ñoom ñuy mën a ubbi bunt yi lu mel ne eh, rogureex yi nga xam ci ay gëstoo yu demee noonu war nañ cee war nañ ñeenti ki kii ñoom suñu xaalis war nañu gën a jege si ak ñeneen sociologue yi yeneen borom xam-xam yi ñuy ànd di tëral ay yoon yoo xam ne dinañ mën a am waxtu nekk ay. résultat wala ay jàngat yoo xam ne ñun ñoo koy defal suñ bopp ci suñu réalité bopp bañ di sukkandiku ci keneen koy ñëw taxaw fële di ñu jàngat ba noppi di ñu wax ni yéen fii ngeen toll nii ngeen war a def ndax bu bu ñu delloo ci sëriñ bi wax ni ma ko waxee léegi joxe na ay junju wax na ne xam-xam mooy lépp dégg nañ ko wax ko wax wax wax xam la ne dañoo war a dem ndax ku wax ku dem ma dem ku dem ma dem ne philosophie boobu ñu àndoon ak sëriñ bi it moom lañ amoon gëm ne kenn ku nekk dangaa wax foofu waxtu nga toll dangaa war a jëf sëriñ Fall jéegi nga muy wax bayit yi bari yoo xam xam naa ba bëggut a tudd te sëñ Bàkki bu soo wax wala ñu ne wala ñu ne day cité baamoom rek waaye sëñ Bàkki bu sulu baree bari ci li wax dafa am bayit boo xam ne moom da ko waxoon ca ca ca tam kii ba noonu mooy ca miimiya boobee ba muy wax ne ala hakaza fal yasa kullu mujahidin fa kayfa wa xusnu saalihaati alxawaatimu ba mu waxee sëñ bi lim liggéey ba noppi dana nag képp ku bëgg a jihaadati képp koo xam ne bëgg ngaa jëf yoon waa ngi nii nga xam dañoo junj ne kon kenn ku nekk war ngaa xool liggéeyu sëñ bi yow loo ci war a liggéey loo ci war a dolli kooku jàpp naa ne euh, waxtaan bi am na solo lool mu ne su ko jeexal ci solo waaye damay bëgg rek ñun ñu gën cee avancé gën cee xóot ba mujj mu nekk ay études yoo xam ne yu mën a teg loxo la wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullahi wa barakaatu jërëjëf Serigne ci kàddu yu am solo yi. day mel ne lii mooy jubluwaay bi rek muy wane yoon bu ko defee nag ñi nga xam ne ñooy borom xam-xam yi di gëstukat yi mën a ñëw nag. gën koo yaatal loolu mooy jubluwaayu waxtaan yu mel nii kon sëñ Cham jërëjëf ci genn bi yooyu xam naa dañuy jël commentaire bi ci mujj rek bu ko defee ñu jox ki nga xam ne mooy wax ci kàddu kuréel gi bu ko defee ñu yëkkati jotaay bi kon sëriñ ji di Kébé ñëw mooy commentaire bi ci mujj moom day sëriñ Xalil Bakke ba incha allah mooy wax ci turu kuréel gi bu rahmatullahi taala wa barakatuhu eh, maa ngi siyaare sama mbokk yi di bëgg ci jataay bu am solo ñàkk a wax dafa mënta ñàkk rek waaye wax yi fi jaar doy na sëkk eh, xam naa nag dëkk bu mel ne Touba eh, ñun ñëpp ku ci ne am nga loo ci man di wax jamono ju ne ndax mooy sunu dëkk te dañoo bëgg jamono ju ne muy ni ko sëriñ bi bëggee muy ngën jib dëkk te doon na ko ba noppi sax euh, li fi nekk euh, boo xoolee dëkk bi ci dëkk yi mujj a ñëw ci dëkk yi la ci tu ci ci réew mi waaye fi ne bokk na ci dëkk yi gën a mag mooy ñaareelu dëkk euh, te loolu nag ñi fi jiitu dañ cee liggéey liggéey yu am am am solo njabootu sëñ Tuubaa yi muy xalifa yi liñ ci doon liggéey ku ne xam na ko mbay yi ñu daan mbay man ne woon naa ci dara yi sëñ Saliou waaye bu ñu masaan a mbay benn doomu gerte duñ ko ci nangoo lekk dañuy dajale lépp sëñ bi buñ ko dajalee ba noppi nag mu dajale addiya ji ñëw jox ko ki fi nekkal sëñ Tuubaa eh, bu ci nit masaan a lekk wala jëm ci dara danga am jafe-jafe te it bu ñu noppee ba noppi nag danaan leen tool yi nag bu ngeen dem leen ngeen jeexaat ko ñu jeexaat ko dajale ko indi ko ci li fi nekk bu ñu noppee nag mu ne leen li ci des nag yéen ak waa dëkk yi ci àll bi ngeen yéen ci am mu neex loolu nag dafay tekki ruug yi nga xam ne moom lañ taxawale dëkk bi muy dëkk boo xam ne sacrifice ak liggéeyam yàlla ngir jariñ nit loolu itam boo ñëwee ci Touba ngay gis dëkk boo xam ne li fi nekk ci kër yu nit di dëkkee kër yu seer lañuy ñuy doon waaye kenn jaayu ko kenn dañ leen koy may dolli ci wutal leen ndox courant sax bu ñu leen ko mënoon a teggil dañ leen koy teggil loolu kon li muy tekki yitte ji sëñ bi am ci nit kon sëñ bi liggéeyal na nit ñi liggéeyal na dëkk bi dëkk bi nag ñoo war a góorgóorlu kon jéem a def lu jëm ci euh, maanaam gën a jëmi kanam loolu ndax sëñ bi bi mu koy def ñoom la ko doon defal ci waxtaan wi dégg naa ci sëñ bi euh, kenn ci sàng si doon ku ci wax ne dëkk bi waruñu koo bàyyi rek loolu itam la ndax sëñ sëñ jamono yi mu fi nekkee bëggoon na euh, commerce yi ñuy def ci euh, lu mel ne banque yeeg yooyu ñu génn leen corniche bi waaye gis nañ ne léegi banque yi fees nañ fi dell ak donte banque ginnaaw ñun mënuñoo ñàkk jëflante ak moom te euh, l'islam andi na alternative mais dañ cee sukkandiku euh, fekk fi li fi newoon te loolu it mën nañ ne duruura la maanaam ñàkk pexe moo ñu ci baax kon loolu itam war dañoo mën a lijjanti ba jëflanteeg loolu ndax euh, diine l'islam moom ab lépp la du du loo xam ne dafa daggatoo lépp rek lu waay di def rek bu ko defee te yàlla tax wala sàmmonte ca diine l'islam day daal doon ak jaamu yàlla kon ñun tamit bokk na suñuy jéego yu war muy maanaam euh, banque boo xam ne dafay basé wu ci li lislaam bëgg ñuy itam war nañoo mën a dox ci lu mel noonu nag même bu fekkee euh, mënut a ñàkk itam ñu ñu war lu mel noonu war nañ ko ci boole daal bi ñu topp itam dëkk bi dafa am ab potentiel bu rëy rëy boo xam ne euh, dafay nekk te loolu dañ koy lafañal jamono ju ne bokk na ci lafañal gi euh, dëkk munta dem te institution yi nga xam ne moom la état teg mu bëgg yooyu yëpp amul njariñ lu mel ne maire yi tey euh, dafay lu am solo ci dëkk euh, maire bii nga xam ne moo fi nekk bu ñu ko xoolee li nga xam ne war na ko ci dëkk bi mi ngi koy def ndax mi ngi koy def wala waru koo def ndax loolu dañ ko war a bàyyi mu continuer noonu du ko def wala dañoo war a jéem a seet ay pexe ba lu mel noonu di am waxtaan yu mel nii ak yu mel noonu dañ ko war a waxtaane tey ji maire bi niñ koy euh, élire nga xam dañuy jékki-jékki rek samp kenn ne mooy maire bi loolu dafay waral potentiel candidat yi fi nekk yi nga xam ne bëgg nañ dëkk bi war koo mën a defar kenn du am possibilité man a jot ci dëkk bi mën koo defar te loolu itam day dindi concurrence bu ko defee dëkk bi tamit loolu su amee ki fi nekk day toog rek lu ko neex mu def lu ko neexul du def mais ku ne xam ne dëkk bi am na potentiel boo gisee lu mel ne Touba ci kanam gi taxaw Touba ci kanam normalement bu fekkoon lépp tënku ci yoon ci maire bi waroon war la waroon a nekk bu ñu demee ba nga xam ne ñàkk liggéeyu maire bi wala def la ko war moo indi tey ay maanaam contestation yu ñu doon def ba loolee ci la tey Touba ci kanam juddoo kon normalement loolu tamit war nañ ci xalaat waaw dëkk bi itam ni mu yaatoo ci wàllu. Euh, démographie àgg na foo xam ne normalement waratuñoo bàyyi dëkk bi mu doon benn maire waaye dafa war am maire centrale mairie centrale boo xam ne moo nekk fële mais ñu dagg daggati dëkk bi def dénkaat ko ay maires yoo xam ne ku ci ne da am mën a jariñoo ruq-ruqaat bi nga nekk da nga ci mën a teg bët seet potentiel bi nan nga ko mën a exploiter nan nga mën a jëfandikoo yow euh, sa relation extérieure ak ñeneen. ak yu mel noonu ba mën a développé lu mel noonu loolu day bokk ci li nga xam ne war naa mën a amal njariñ dëkk bi yooyu itam euh, buñ ko toogee noonu di ko seetaan day daal doon lu doy waar su duggee ci wàllum njàng mi njàng mi dañ ko war a dëppale ci li ma ko gisee ak suñuy soxla ndax boo xoolee itam euh, man li ma seetlu mooy réew mu mel ne Sénégal euh, rawatina nga nga tudd ci tubaa li ñuy jàng lépp ñii ay ay français la ñuy jàng ñii di jàng arab mais bu ñu noppee suñu waxtaan yii bu ñu koy waxtaanee ci wolof lañu koy def euh, lu waaye am xam-xam pour nga mën a accéder wala nga mën a accès ci ci peuple bi da nga koy wax ci làkk wi ñu dëkk te te boo xoolee quatre-vingt-quinze pour cent yi sénégalais yi dégg nañu aw làkk te réew mi itam léegi egg nañ ay seize jëm di war a màgg ñu bëgg a neenal euh, maanaam lu amee solo ni aw làkk nga xam ne lépp lu ñuy def rek. ñun dañuy sukkandiku ci dem jàngi ko ci français wala nangu bu ñu noppee wax ka nañ ko bëggee demee loolu tamit dafay lafañal xam-xam day waral xam-xam du am du doole te xam-xam bi itam du nosu ndax yow loo mën a xam dafay mel ne da ngay wax lii rek mais lu xam-xamee lu tegu ci yoon maanaam loolu maanaam normalement fullaal sunu lakk yi di ko ci bind di ko ci jàngale loolu dafa jot nag ñu ñu ñu commencé ci xalaat waaye waaye université Touba bi li muy rëy rëy lépp lu am njëriñ ak yaakaar yu wéy yi ci yi ci aju suñ ko defee ba noppi wëlbatikuwaat demaat ci français wala ñu demaat ci araab di ko jàngale bàyyi fi lu mel ne suñ lakk yi duñ ci jëm benn euh, kii tamit day mel ne man ni ma koy gisee te lu sëñ Muntaxa bëgg sëñ bëgg ko lu mas a doon échec waaye ñun ni ñuy doxee nii bu fekkee ci côté boobu la doxee man dama gis ne luy nuru échec day am foofu kon defee mel ne war nañoo góor góorlu ci wàll yooyu jéego ci jéego pour njàng mi ñu harmoniser ko mu doon nag bunt boo xam ne ci la Sénégal gépp war a mën a royee pour mën a ñuy wax ndax sëñ Tuubaa moo ne alxilmu wal xamalu jawharaani li xayri daarini yëj lu bari boo ñëwee ci tey jii euh, ci wàllug euh, ba tey ci wàllug liggéey dégg naa sëñ sëñ xaade mu wax lu am solo mooy dëkk bi tam euh, day mel na boo xoolee day dañoo dañuy dañuy li ñuy wax maanaam da ngay maanaam dañuy dañuy nekk ci maanaam boo àddina day boole asamaan ak suuf waaye ñun day mel ne asamaan si lañ gën a dund ko suuf si maanaam ndax lépp rek dañ koy teg ci euh, xéewal di dinañ ñëw sëñ bi ñaan na ko te loolu wér la ndax sëñ bi wax dëgg yàlla euh, ko xool dëkk bi ni muy doxee xam ne baatin moo koy doxal waaye la fi war ni mu war a doxe dëgg-dëgg ci wàllu sayir ak su suñuy loxo ne ci des na te loolu nag gis naa ne du du du du Touba rek Sénégal ak Afrique la muy dafa am lu ñuy wax transformation muy jël suñu matière première yi di ci jéem a di ko jéem a transformé maanaam bala ñu ko génn ci biti loolu dañ cee deltu deltu ginnaaw mooy euh, dégg naa mbokk ma ko fi wax léegi ci wàllu industrie nga xam ne ni ci war a liggéey ba léegi yooyu yëpp commerce rek ñun ñëpp affaire commerce la ñuy def te commerce itam da ngay dem a dem dem ba bu ñëpp duggee ci mel mbir boobaa day des moo tax nag wàllu boobu yaakaar naa ne war nañ cee góorgóorlu te jëmee ko ci njàng bi ñuy def nag bi ci topp te ci laay tëje muy wàllu dëkk bi Euh, maanaam war nañoo maanaam wàññi ci wàll euh, ni ñuy sukkandikoo ci addiye yi lu am am solo la waaye war nañu addiye yi bu génnee ñu or tey jii man bi ma nekkee mas dem dëkk ci Milan benn dëkk boo xam ne maanaam ay naar ñoo fa am jumaa ju ndaw ndaw mais jumaa ji boo fi duggee da gis ne maanaam fa la ñëpp di waxtaan see bu julli jotee ñu julli ku maanaam ku ku liggéeyul daal jumaa jumaa ji mooy sa garan palace mais jumaa ji dañ faa def lu mel ne restaurant am na fa euh, lu mel ne daara am na fa ak yeneen yu bëree bëri yi nga xam ne activité yu bëree bëree bëri yoo xam ne dafay am ci kii loo xam ne dafay dundal nit maa xam li leen di soxla ak yu mel noonu kon dafay mel ne ñun tamit suñu euh, yu mel noonu gis naa ne euh, suñu jumaa yi boo ñëwoon tey bu julli jotee bu julli jàllee ñëpp dañuy génn war nañu lijjanti ba barab yooyu du doon barab yoo xam ne day am ay activité yoo xam ne mën na koy wër te loolu dafay dundal barab bi te loolu dafay dundal koom ndax nit tamit dafa soxla koom waaw yu mel noonu daal bu ko defee mën nañoo dem itam ci loolu ba man cee basé wu ba maanaam euh, bu fan yi maa ngi dégg ku mel ne sëñ mbakk yu fay mu tudd ne jumaay yi euh, ca Ndakaaru euh, courant bi seer loolu muy wax ju yoo xam ne li muy tekki mooy liñ investir ci dëkk bi bu ñu demee bay am problème bu courant kon cela veut dire que war nañooy lijjantiwaat ba ci xaalis yooyu ñu fiy jëlee ñuy def ay investissement yeneen man nañuy investir def ay restaurant fee def leneen fee yu ndaw daan yooyu dafay mën a génne leneen yëpp dafa bokk ci ci xalaat yi nga xam ne ragal naa ne li ngeen di wax fii nu am na solo buñ ci sukkandiku war nañ cee mën a sukkandiku ba yeneen yu mën ci génne di jégalu bu baax a baax nag euh, euh, ci kàddu bi. jërëjëf Serigne ci kàddu yam solo yi am na solo la macha allah kon ngir njëkkanteeg wax bi dañu woo Serigne Khalil Mbacké doon bu ko defee mu wax ci. turu kuréel gi wala de sëñ bi ñaan nga yëg li jotaay bi beneen incha allah bismillaahi rahmaani rahiim asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu loolu leen di nuyu bu baax di leen siyaara bu baax a baax ci turu kuréel gi nga xam ne mooy liggéeyal ku tedd gi di kuréel boo xam ne ay yëngoom yëpp da koo ci liggéeyal sëriñ bi ci wàllu xam-xam ci di ko jàngale ak di ci yeete ak di ko tisaare ngir ne ñi ci nekk ñëpp ci wàll boobu la seen yëngu jëm ñu jàpp it ne ginnaaw liggéeyal sëriñ bi dafa yaatu ku ci nekk day am wet goo féete di fa liggéeyal sëriñ bi bu wet yëpp mu gëndaloo mu mel ni li ñu bëgg dana am moo tax kuréel gi di liggéeyal ko tedd gi li ëpp ci ay yëngoom wala yëngoom yëpp mu jëme ko ci wàllu xam-xam ngir ne ay ndaw yi ci nekk yépp ci xam-xam la ñuy ci di ko jàng ak di ko jàngale ak di ko tisaare ak di ci yee nit ñi liggéey yi nga xam ne ñoo koy liggéey itam bokk na ci di jàngale ci anam yu baree bari ci fi nga xam ne moom la jamono toll ci li ñuy wax mbaalu jokkoo yi fexe ba fu nit fekk li mu aajowoo ci xam-xam rawat na ci njàngalem sëriñ bi ñu di ko tisaare ba mu yegg ci ñoom liggéeyal sëriñ bi moom kuréel gii di kuréel liggéeyal ku tedd loolu moo waral bis yi nga xam ne ñu koy amal rawatina bis bi nga xam ne bu weeru safar amee ñetti fan ñu sàkk bis boo xam ne dañ koy amal ngir waajal ko màggal gi waaye indi ci ay bind yu yeesu jëm ci njàngalem sëriñ bi waaye itam soññ ci ndaw ñi nga xam ne dañoo toll ci jàng ak mag ñi nga xam ne dañoo nangoo jàngale te na ci jàngukaay yi di jàngale itam ñu sargal leen ci ngir dëgëral nekk loolu itam ci seeni taxawaay la bokk ci seeni taxawaay itam bis bii nga xam ne dañ koy waajale gàmmu gi te laata ñu ciy yegsi ñu koy waajale ay waxtaan yoo xam ne du amee ne nii jotaay bii di amee waaye day amee ci waxtaan yoo xam ne amee ci ñu koy def ay vidéo di ko tasaare ngir ñi ci war a jot man cee jot muy doon ñeent ba juróom yoo xam ne mooy jiitu waxtaan wi ñu ko jiitu woon waxtaan wi bi moo nekkoon rek indi ay bind yu yees wala jàngat ci tolluwaay bi nga xam ne moom lañu ñu ku nekk xam na ne dëkk bii ñu nekk sëriñ bi am na lu mu mu mel ba lu ci bare bari bind na ko mbokk yi nga xam ne ñoo fi jël kàddu yëpp dinañ ko waxtaane indi nañ ci ay waxtaan yoo ay xam-xam yoo am solo ak i yoo xam ne mel ni ñi fi nekkoon yëpp man jariñu nañ ci te itam njariñ lu moo taxoon ñu ne warees naa mën a sàkk thème bu mel nii ak fii nu toll ak li nga xam ne moo ne ci sunu kanam ñu jàngat ko xoolaat fi ñuy teg suñu tànk ba xam li weesu lu ci mat a joyanti ñu jéem koo joyanti te teel a jéem a xalaat ci li nga xam ne moo di suñu kanam ndax faaw yàgg àgg ca te waajal ndax dañuy wax ne ni nga bëgg sa ëllëg mel ko wala boog sa ëllëgu réew mel ko da ngay fexe fexe yar say ci wet kon li nga xam ne moom lañ dëgmal suñu kanam itam jéem cee teel jëm. mu mel ne mbokk yi nga xam ne ñoo doon def waxtaan wi noo ngi leen di sant li doon jubluwaayam am na lu kawe jortam ci waxtaan wi ñu ñëwee ndax ci wàll yi nga xam ne moom lañ tënkoon waxtaan wi muy ci wàllu diine ak ci wàllu dundin ak ci wàllum koom-koom lu ci nekk day mel ne ay buntu feeñ na ci yoo xam ne manees naa jàpp ne li ci ëpp mooy ne mi ngi dox mooy mi ngi jëm kanam daanaka li ciy dolleeku rek mooy na gën a jëm kanam te gën a baax te gën a rafet te day mel ne kàddu yëpp foofu la jëm loolu itam day wane ne yéene yi ak bëgg-bëgg yi yëpp mi ngi jëm ci jëmmalal sëriñ bi yéen li nga xam ne moom la bëgg ci dëkk bi mu des nag ne ab dëkk moom jamono ju nekk ginnaaw day màgg rawatina dëkk bii di Touba nga xam ne màggaayam gis nañ ni mu gaawee ak ni muy yaatoo ak nit ñi niñ ko dëgmale te li leen fi indi lépp di bëgg lu baax ak bëgg sëriñ bi aku xéer day aajo woon nag ak saytu ci jamono ñu nekk fexe ba ñi fi ñëw jamono ñu nekk ñu fekk fi yaakaar ji nga xam ne moo leen tax a jóg doonte lépp du mën a sotteendoo waaye jamono ñu nekk ñuy bàyyi xel dolli ko dëkk beeg yaatuwaay bi ba tax fa ñu tolloon jamono ju nekk ñu koy jéem a weesu ci wàll yooyu kon ñoo ngi leen di sant bu baax a baax a baax di sant mbooleem kilifa yi fi teew ak mbooleem kuréel yi nga xam ne wuy si woon nañ ak bokki jullit yi fi teew yëpp kuréel gaa ngi leen di sant bu baax a baax di wax rek ne kuréel la koo xam ne du yemut ci Masamba ak Demba waaye kuréel la koo xam ne ñëpp a ci bokk képp ku ci bëgg a bokk rek jàpp nañu ci biir nga bokk ndax ay ndaw la ñoo xam ne ci dëkk bi lañ dëkk waa dëkk bi lañ seen yëngu lii rekk la du leneen amul leneen loo xam ne ñu ngi kon képp koo xam ne jàpp nga ne war ngaa mën a liggéey sëriñ bi ci fànn gi rek jàppal ne jàpp nañ ne yàgg ci biir kon noo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm di la sant bu baax si saam ci taxawaay bi ci waxtaan wi di sant mbokk yi wuy si woon di wax ne suñu xol set na baax ci teewaay bi ndax xam nañu ne ñi ñëw ñëpp wuy si wuñ woote bu ñu leen woo waaye dañoo xam rek ne lu ñu war a def la ñu yëg ne ñeneen ko koy def ñu jàpp ne ñoom itam ñoo ko waroon a def ñu ñëw teew si ndax lii ñëpp ko war a def wala boog mbirum ñëpp la moo xam ne ku nekk ci ñun am nga yéene yi woote jotaay mel nii ngir ñu waxtaan ci dëkkub sëriñ bi ak lu koy jëmale kanam kon ñi wuyu si ñëpp day mel ne jubluwaayu dañoo ñëw wuyu ci loo xam ne ñoo ko moom ak loo xam ne jàpp nañu ñoo ko war na woote kon noo ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. waaleykum salaam wa rahmatullah jërëjëf sëriñ xarit ci kàddu yi xam naa sëñ bi xam naa dañuy àndal ga ñoom rek bu ko defee ñu ci taay bi incha allah amin amin amin amin mooy